salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi nuyu nañ leen fi ñu leen daan nuyoo wal fu jëm kanam xurdab bi topp suñu ginnaaw comme d'habitude masallah masallah béti sama kaas mbaama kaas wala ma toj fees laa dul mën fees far béti bul jaxase fees for kotis ba gëm bu guux garab du neex doxu géej ak daqaar ma ngay faj boppam tàccu leen loolu waaye tamit na ngir yàlla hmm. alhamdulilahi rabbil alamina del siwaat na ñëw ak yéen seen émission ataaya mhm. béti waaw ngi nuyu askanu Sénégal gi nga xam ni moo ñooñu safoo waaw ñu nit ñu mhm. delloo leen boobu la cër rek nuyu leen bu baax a baax file ci waxtu bu baax wi file ci seen télévision Walfadjri di nuyu bu baax a baax assistance bi ak invité yi nga xamante ni nag li ñuy wax rek jot amul waaye fu leen wooyee ñu wuy suñu ñu leen di eh, ci remercier bu baax a baax seen émission ataaya nag eh, Sa Ndiogou àjjuma ju nekk ak eh, ña ñuy dalal. Mhm. yàpp xaj bu sedde soof. ndéem dañ koy lekk ndéem dañ koy lekk. ana fan lañ jëm jafeñ-jafeñ am na. fan ci aéroport. ñi nga xamante ni bi ñoo fa doon liggéey daa am ay difficulté ndaxte kat bañ tabaxaatee beneen aéroport. am na ñoo xam ne fii lañ leen bàyyi ba tey demuñu am na ñoo xam ne jóg nañ ngir fas yéene ñaxtu ngir tamit ñu daat leen di delloo waat seen place am na ku jóg ngir fas yéene caa wax kookan la Abdoulaye Bob moo ñuy xamale ak moom Bob dikkal <laughs> Alioune ma nga juddoo Casamance ci dëkk bii di Songokunda don ku teel a xam géej doon ànd ak saay sune ne ak waajuram dem nappi ca la màggee ba noonee muy bawoo Sédhiou daal di wut Ndakaaru soobu ci taaba taaba gu metti Alioune Mané def na métier maçon taroon ci moom lool atum 2006 mu jóge Ndakaaru wutali Nouadhibou def fa lu tolloog juróom-ñeenti weer amoon yéene dem ci Espagne waaye mujjuta sotti Alioune Mané ñibbisiwaat Ndakaaru soobu ci journalier maanaam Mané bar ca marché ngelaw ba noonee muy xamanteek waa mairie bu Biscuiterie fala soobu ci wàllu politique fala xamanteek Pape Mayel Diop njiital ADS ma wutal xëy ci aéroport international Léopold Sédar Senghor Alioune Sané la mu gën a taamu ci lekk di c'est bon maanaam ñànkatan gu am soos gu far lool. tàccu leer ko <laughs> c'est bon nuyu di la ziar. fay ñu ngi nuyu. fay naa la sa Diop. waaw. c'est bon bi la. Ah, kay c'est bon nga <laughs> nuyoo ak askan wi. <laughs> ok man la Aliou Sané maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur sa sanda. Mhm. Euh, ñoom maa yom benn collectif boo xamante ni ñoo bokk aéroport Léopold Sédar Senghor. Mhm. ñun euh, dañu yor benn collectif boo xamante ni mille cinq cent person waaw. Euh, combat la boo xamante ni. Aliou bu duggagum ci combat bi nuyoon rek. <laughs> waaw combat la boo xamante ni. waaw bu ñu koy engagé. bu ñu ko mus a bàyyi. incha allah moo tax ma nuyoo. ñu may àndal. d'accord tàccu leen ko. xëy na dëgg fu ñu jëm. ñu dem nag Dakar dem dikk bi nga xamante ni nag lu def waxul ay di njàmbat te ñoom ñoo xew nag ñooy def buzz comme ni nga xale yi waxee. Mm. ak seen i problème foncier ak recrutement ya fa am ki ñu ci fas yéene seqal waxtaan Ablaye boobu moo ñu xamal léegi moom. màggee ba noonee muy bawoo Sédhiou daal di wut si Omar Gueye judo ca Thiès dekk Thiès fa la doore njàngam primaire ak secondaire laata muy dem travaux publics tàggatu ji jóge fa dem ca projet ITP 1 Omar Gueye jóge fa dem ca MCM W Waro ci américain jóge fa dal di soobu ci transport doon chauffeur ca Dakar dem dikk soobu ci syndicat ba fa ne yoroon lépp lu jëm ci wàllu ñaxtu maanaam revendication ba dem ba nekk secrétaire général ba tey mu doon chargé de mission Omar Gueye la mu taamu ci lekk di yaasa ginaar Omar am na lu yomb yaa sa kenn bañu ko Omar yow yaa sa ginaar kenn bañu ko yow da nga koo gën a bëgg. mais dëgg la mooy sa loo am moo la ko gën a guddeeg bëccëg. Aïcha Omar am nañu mbégte dalal la ci ataaya ñu ngi lay nuyu nuyoo ak askan wi. waaw jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu di nuyu sa Ndiogou ñu ngi lay fay baax di nuyu sama camarade yi ma bokkal plateau bi di nuyu waa Sénégal rawatina nag waa Dakar Dem Dikk mais di beral nuyo waa site 3D syndicat bi nga xam maa ko d'accord muy syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk saa fu ñu bu góor jigéen ñi waxee ne Sénégal la yi ñëw mu ne déedéet du fi am bu franc-maçon yi waxee mu ne déedéet du fi am buñ jiiñee jàngalekatu alxuraan yi ne leen kat ay terroriste ngeen mu daa dee lànk kookan la ab laay boobu moo ñuy xam leeg moom laay dikkal laay boobu dikkal <laughs> Abdou Karim Gueye juddoo Ndakaaru ca quartier bopp soobu ci mouvement hip hop ci atum 1995 jàpp 1996 ci groupe bii di ji ci atum mu def featuring ak Souleymane Faye ci woy bii di caabi bi ci atum 2004 Abdou Karim Gueye génne kasetam bu njëkk duppee ko kàddu ci groupe Masxuba atum 2006 mu génne single tuddee ko noonu xaq 2007 mu génne Bic Rouge ca la atum 2009 Karim Gueye soobu ci animation rajo atum 2011 mu bokk ci mouvement Yanamar 2012 ñu Yanamar jàppale ko 2013 mu ba Y'en a marre daal di soobu ci xeexal ndawu Colobane yoon tegaat ko loxo yóbbu ko ndungu siin Abdou Karim Gueye ca kaso gamu ne woon fa la taxawee mouvement nitu dëgg di xeex ngir sàmm suñu valeur atum 2014 2015 mu soobu ci xeexu mbirum góor jigéen ñi doon xarab Sakou Wally Seck mi fi juróon coow atum 2017 mu jóg di xeex ngir imaam Alioune Badara ndaw génn ci kaso bi faf mu dugaat kaso moom Abdou Karim géey la mu gën a taamu ci lekk di fataaya rawatina pastel ak akara non mais Karim bett nga ñu. non non non non Fataay. non Fataay jën wala yàpp bu jën wala bu yàpp. non mais Karim non mais non non. Fataay boobu sérieux mais Fataay Fataay non Karim Karim bu ñu bu ñu. dëggalal Fataay la waaw wala déet. waaw c'est-à-dire bu Fataay parce que parce que xam nga. bu fekk pour ma sa bañ a sonn comme man damay dox rek maa ngi ci dëkk bi di daw rek. fu ma sonnee rek jàdd. doo sama pataay xam nga jàpp sama ñaam. non mais Karim non mais vraiment Karim non pataay. Karim bu nuyoo ak askan wi. pataay maa ngi maa ngi ziar biti maa ngi lay nuyu. waaw euh, di nuyu ma bokkal plateau bi. di nuyu Sénégalais yëpp vraiment di rafetlu vraiment invitation bi. di ñaan yàlla rek bañ fi lu ñuy xeebee. Mhm. <laughs> dañuy daal nag euh, fële ca Citydia di euh, groupe digital SA. bi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla ñoom it euh, jamono ji yëngu na ndax gannaaw ban ko jaayee Auchan maanaam français yi ñuy wax ne ñu ngi ferankulaayu biir Sénégal seen doole diggan di yokk saa suñu xëyee ñoom ña nga xamante ni ñooy cent cinquante et une personnes ya fa nekkoon am na nun leen def maanaam dàq ki leen fi teewal ay ca Ablaye bopp xamale ñoom moom laay dikkal Mouhamed Moustapha Diop lay wuyoo judo ca Rufisque ci atum 1989 dooree njàngum alxuraan laata muy dugg école jànge diggante Fatick ak Kaolack ak Ndakaaru bu dee élémentaire ma nga jànge ci école Koumba Ndoffène Diouf ba ne ca Fatick fa la amee certificat ak entrée en sixième amee lijaasa BFM ca CM Jim Momar Gueye amee lijaasa baccalauréat ci école privée La Lumière ba ne ca Kaolack fa la jógee wutali université Cheikh Anta Diop def fa lu tolloog ñaari at jot na amal formation ci wàllu maintenance ak réseau mi doon métier tey Mouhamed Moustapha Diop jot na liggéey ca siti ja ba fanweeri fan ci weeru décembre ko fa jëlee waaye la mu jotata ci lekk bokk na ci pepesu Moustapha pepesu pepesu pour ndar ndar yi njab lañ koy wax njab yow café su sa plat nga naan ñeex ba dagan xanaa dee ci def ceeb parce yow ñi nga tool nii nga topp pepe su rek yow pepe ba kañ mais Moustapha pepe su sa plat waaw mu ngi noonu pepe du sama plat de <laughs> waa léegi wax ñu li sa maafe mooy sama ah, plat kay maafe yàpp. foroxal wala maafe kanja maafe yàpp. pepe du sa plat. du sa plat. <laughs> baax na da ngay naan ba mandi. déedéet eh, Ablaye boobu pétition gi nii. waaw Moussa Fane du plat. mu ngi noonu man xaw ma nag foo leen jëlee pepe su bi. Moustapha ñu di la dalal nuyoo la askan wi. waaw salaamaaleykum waa Sénégal. salaamaaleykum di nuyu kilifa diine Mhm. kilifa aada yi. Mhm. di leen di nuyu yow tamit Sandiogou ak Betty di nuyu téléspectateur ak euh, téléspectatrice Walfadjiri mhm. di nuyu tamit sama. collègue yi nga xam ne moom lañ. ñun dàqandoo moom laa àndal waaw. ñun ñun dàqandoo ñun ñii ñëpp. Mm-hmm. collectif nag mooy collectif des cent cinquante personnes mm-hmm. par diagonale. Mm-hmm. waaw Sitidia. dëgg donc ñun ñoo ñoo yor seen baat. teewal leen fii daal ci biir émission bi. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ. ay ca mi ngoo ko Aliou Sané moom la ñuy euh, tàmbale suñu waxtaan Aliou saane ñu fàttali ne nag euh, ñoom ñooy prestataire yi nga xamante ni ñu nga woon fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor waaye nag ba ñuy dem jas ñoom ñëpp dañ leen fa beddi teg leen noonu ma bëggoon a xam rek euh, seen njariñ dafa bariwul woon fii ñu constaté ko ni duñ leen yóbbu wala lan la Aliou Sané o oh, ñun sax depuis ñu commencé tuxal aéroport hmm. le 7 décembre ñu yóbbu ko jas ñun yaakaar euh, naa ma nga dikk tuuti rek ci yéen prestataire lan mooy doon seen liggéey fii ci Léopold Sédar liggéey bu nekk gis naa jaar nañu foofu si aéroport Léopold Sédar Senghor fii reconnaître woon nañ leen ñoom autorité yi ñun bu ñu demul foofu noonu presque yi duñu yéeg ah, dem ah, ñun ñooy mille cinq cent prestataires ñoo xamante ne ñoo nekk Léopold Sédar Senghor mhm. ñun treize heures quarante cinq bu ñu monté autres euh, responsables yi nekk si bureau depuis ADS Tech Village le ba tombé man maa monté treize heures quarante cinq mais gisuñu benn responsable yoo xamante ni mun nañu war a woo mu ne ah ñun de teel a ADS tëji dañuy dem AIDB dañuy demoon foofu noonu ñu monté foofu noonu treize heures quarante cinq ba dix sept xamuñu fu ñu jëm gisuñu suñu kilifa yi problème bi ñu mu jaaxale ñu trop aéroport même pas trois jours personnel yoo xamante ni moo ñu jël fu ñu jógee indi ñu ADS arrêté la lañ depuis ñu arrêté directeur gisuñu ko. responsable gisuñu ko ñu nekk mille cinq cent personnes loolu dafa ñu jaaxal topp man dama yaakaar ni aéroport Léopold Sédar Senghor moom moo jur aéroport AIBD pourtant mille cinq cent personnes yooyu noonu balaa nga koy jël balaa ngay jël yeneen yu bees yi nga yóbbu leen AIBD da nga war a jël ñoo xamante ni ñoo nekk kër bu njëkk ba ñun ñoo tax AIBD am ñun 2012 la ñu ñëwoon aéroport Léopold Sédar Senghor suñu gis-gis ak xam-xam bu ñu amoon Léopold Sédar Senghor balaa ngay jël nouveau yi danga war a jël ancien ñoo xamante ne ñoo xam aéroport ñoo xam eh, aéroport lan lañ war a liggéey foofu nag lan lañ war a liggéeyul foofu noonu ñoom nga war a jël nga yóbbu leen foofu noonu balaa nga yor indi nouveau nouveau yi foofu kon yéen daal bu ñu jàngatee Sa Ndiogou yéen yéen a doon priorité yi mais dañ leen a bàyyi xanaa syndicat bi amul foofu amul syndicat wu wala dara ñoo xamante ni war nañ leen mën a kaasal. non syndicat am na foofu noonu mais ñun ay ak syndicat yi dañu yaakaar ni comme lu ma la waxee ne ay responsable yi nekkee foofu na ak syndicat man sama gis-gis da yaakaar ne kenn ku nekk da ngay xeex sa kopp sa sa côté. c'est ça. Ah, gisuñu syndicat yi. yéen ce que kii woon ngeen ci benn syndicat. non. Ah, ah kon léegi tam lu leen syndicat di xeexal. adhéré wu leen. adhéré wu leen ci benn syndicat léegi ngeen bëgg syndicat si xeexal leen ñaareel bi man li may laaj euh, Aliou <coughs> mooy da ne sans yéen avion du woon yéeg. mais gars yi tuxu nañ te avion yaa ngi si mal moo tax ma ne saa yi ñun avion du yéegi ñun ñoo yoroon sario yi ñun ñoo yoroon tap yi ñun ñoo yoroon sous-sol bagage yi bu tardé ñun ñoo koy jël di ko yóbbu ah. beneen tapi bi kon léegi ba avion dafa war a jël passager bu ñun nekkuñu ñu foofu noonu passager yi seen bagage yi demul kon avion du yéeg du dem sans passager yaakaar na avion du dem waaw mais xam nga loolu Aliou c'est que xam bu tey boo nee waaw sans ñun avion du yéeg waaw béti waaw loolu dafa mel ni yéen da ngeen am xara xam benn rôle boo xamante ni mais pousse sérieux la mhm. non boo demee jas mën nga am ñu la yóbbu ba est-ce que nekkul ni tamit que ñoom est-ce que nekkul ni bi ñu tuxalee aéroport mhm. nga xamante ni bi ci euh, parce que tamit ñooñu dañ doon manifester ñooñu ñoom dañ leen a war a jël mhm. xam nga ñooñu dañ ne duñu nangu ñee jógee Dakar ñëw fii ñu jël leen xam nga ñoom loolu la ñu waxoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci localité Diass mhm. ñoom dañ ne du ñu nangu ñuy jëli ji waa Dakar te doomu Diass yi mën a liggéey liggéey boobu est-ce que ñoom gisuñu ne li ngeen doon def yéen doomu Diass yi mën nañ ko ñu jox ko doomu Diass yi non ñoom mën nañ yaakaar lool mais man de sama gis-gis hmm. mënoo nekk sa kër fii nii mu nekk barak hmm. nga tabax benn étage bu nekk parcelle nga tuur nga ne sa njaboot yi du dem foofu <laughs> man du ma nangu loolu mais Aliou jaboot bi il faut comprendre euh, Aliou eh, a mais comprendre leen njaboot voilà comprendre naa li bi nga ma posé xam naa ko parce que borom kër gi fii moom fii mooy borom këru ñële état ngay waxal état bi dafa jaboote ñu nekk euh, Dakar jaboote ñi nekk Diass mais état boobu noonu dama yaakaar ni jeunesse yi nekk fii naa ak euh, suñu yaay yi ku mel ni ci bu ñu amee problème fii nii hmm. cadre liggéey. dama yaakaar ni état moo war a taxaw défendre loolu. waaw mais état dafa war a yokk chômage. mais bu ko wàññee léegi nii ñun fan lañ jëm. problème yi nekk si dëkk bi yëpp yooyu yëg même même man Pape lan lan moo la yow lan moo la dugal aéroport yow dafa mel ni Pape Mayel moo la dugal aéroport. man dama yaakaar ni man sénégalais la ma bokk Sénégal ma juddoo fii màggee fii. Euh, lu Sénégal war a am sénégalais war a am. man war naa ko am. du diw Pape Mayel Pape Mayel bu ko neexee mu jël fan point on amitié. waaw ñu juddoo foofu nu màggee foofu nu war naan jël ñooñu. mais Pape Mayel xoolul loolu Pape Mayel dafa yamale ñëpp. mais Pape Mayel bu la dugalee aéroport cela la. non man man man waaw waaw. politique la wuyul saa politique parce que Pape Mayel politicien la. day seet ñoo koy jariñ ci politique mu dugal dañu dindi ñi nga xam ne ñooy clientèle politique bi ñu daal leen di wàññi ñi nga xam ne ñoom la Pape Mayel àndaloon. non man lu ma jàngat ci Pape Mayel waaw mooy Pape Mayel dafa ñëw 2012 denc ko aéroport Pape Mayel moom boo xoolee ay lu muy liggéey ADS e ak ADS e lu mu meloon bu njëkk ba jamono Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye jàmbaar la ka ci ngalaama mais Pape Mayel dafa yóbbu aéroport foo xamante ni Sénégalais yëpp diñ koy xool di ko njëriñoo. Pape Mayel Pape la yóbbu aéroport mais xoolal aéroport lu mel ni léegi aéroport 2012 boo duggee foofu noonu amul sens interdit gauche ak droite nit ñi dañuy dugg. mais aéroport bi Pape Maye lan la fa def. mais xoolal Pape Maye lu muy liggéey fi Pape Maye boo duggee ADS léegi nii dafa am sécurité boppam. aéroport lu muy créé foofu noonu boo xoolee dafa am njariñ si askan bi dafa am njëriñ si. si gouvernement bi ah, Pape ah, Maye mooy ñi da mooy ki mooy ñi moo daggaloon salaire ñoom Lamine ak ñoom. ay ay ñoom kii waaw ah, ci aéroport bi. Eh, mooy ki nga xam ni bétti politique Lamine Samba salaire salaire. Lamine Thiam dogo salaire. Hmm. ñoom ñëpp daggal xam loolu quoi. ah man yëgu ma ko yëgoo ko. ko non noo koy yëgee. non man non man ma dem Samba. <laughs> ma nangu loolu dama nangu loolu. waaw ñu ñëw ñu ñëw juste benn question balaa ñuy dem. Euh, yéen ay prestataire ngeen. Hmm. parce que aussi bu fekkoon yéen yéen yéen indispensable ngeen ci liggéey bi. Hmm. def naa ne bu ñuy dem dinañ leen yóbbu. wala yéen la ñuy njëkk xalaat yéen yéen pour yéen lan lan moo tax ñu bàyyi leen fi man loolu laa bëgg xam lan moo tax loolu dafa ñu jaaxal trop lan moo tax ñu bàyyi mille cinq cent prestataires li saa wax dëgg la demu leen mais liggéey baa ngay dox si liggéey bi ñuy dox foofu waaw mais man lan moo ñu jaaxal mais tax demu leen yéen xanaa amu leen ay ay compte moom mooy loolu bu fekkee ni reconnaître leen woon aussi dàq leen day yomb wala bàyyi leen fi day yomb mais mais mais mais lan ngeen yaakaar ni moo tax ñu bàyyi leen fi seen njëriñ dafa mel ni bariwul woon ci aéroport non suñu njëriñ bi dafa bari ah. ku liggéey cinq ans wala plus ku liggéey cinq ans wala plus mhm. nga nekk aéroport di liggéey mhm. amoo contrat mhm. embauché ñu la ba jamono tolloo bu ñu tuxal aéroport yóbbu nga AIBD lu tax nangu lu tax leen woon seen contrat wala ñu embauché leen wala dara mag aussi lu mu nangu teg ko ko dagan na de lu tax lijjantiwu leen woon loolu. si mun nañ ko lijjante. mun nañ ko bañ a man maa ngi foofu noonu depuis 2012 ba léegi. maa ngi liggéey 2012 ba 2018. waaw sept euh, ñaata. daanaka sept ans six ans six ans waaw. nga nekk ci bërëb di liggéey kenn amoo contrat xamoo lu lu lié ak société bi nii rien. Mm. ngay liggéey kon kañ bu leen fa bàyyee amatu leen benn droit yéen. non am nañu njëriñ am nañu droit. yéen am ngeen kayit amoon ngeen kayit. amuñu kayit non loolu ma la la amuñu kayit mais. ku liggéey cinq ans gouvernement Sénégal lu mu mel ni jamono bi ak jamono bi ñu ah. toll nii depuis Macky Sall falo ba léegi ñun suñu yaakaar ne mille cinq cent personnes waru ko bàyyi aéroport Léopold Sédar Senghor fi muy ubbi aéroport yu jas Aliou mm-hmm. nekk mille cinq cent personnes yooyu noonu ay père de famille lañ Aliou xam nga la moo la daal ma xam way Youssou Ndour bi na ma dàq naa la boobu aw ma këyit ya ma war non yàlla war ah, moom boo xoolee jamono tey dama lay posé benn question ah, mille cinq cent personnes Mhm. munoo ko bàyyi aéroport Léopold Sédar Senghor mhm. jamono bu metti na père de famille lañ mhm. jamono buñ tolloon nii am na ñoo xamante ni fay ñu seen nekk seen nekk yëpp dëgg la jamono bi am na ñoo xamante ni waaw yaay booy yi suñu rakk yi jigéen yi xamuñu fu ñu jëm dëgg la xam nga problème Casamance bu xewoon foofu noonu décès bu amoon foofu noonu quatorze personnes am na xale góor yu jógee fii nii dem Libye de dee si si géej bi mais xanaa gouvernement bi warul amu yërmande boobu xam ni mille cinq cent personnes yi war nañu lijjante suñu situation pour pour bu ñu jaaxalee gouvernement moo ñu war a dimbale. dinañ dellu soit ci yow. dañu tourné rek Omar Gaye borom dem Dakar dem dikk. Dakar dem euh, mais Omar ma fàttali ni Omar yow euh, Dakar dem dikk. xam nga nag temps yi moom yéen def ba <laughs> nangu nga. temps yi moom yéen a xew rajo télé yëpp yéen a xew. mais ñu gis nii yow travailleurs yi syndicat bu ñu ko waxee travailleurs yee tax. Hmm. mais yow dafa mel ni da jël syndicat unique de travailleurs de Dakar dem dikk euh, suuxal ko ci biir kii bi. ci biir direction bi. Uh-huh. nekk ni dóoratoo fay wo xanaa ñu ànd ak yow. Uh-huh. mais ñeneen ñi nee nañu da nga jël syndicat bi rek jaay ko direction. Uh-huh. te Omar na nag. ah nga fii ñun doo suñu gan xamante nañu bu baax. <laughs> waaw jërëjëf euh, Betty. xaritu gujaa bi. waaw dëgg la sama grand frère la sama xarit la. <laughs> waaye jërëjëf question bi ma euh, laaj. Mm-hmm. yaakaar naa ni war na mat ñetti ak mm-hmm. coow amoon comme nii ma ñëwoon ngeen invité ma. ngeen ma lu tax tey gujaa bi di xeex ak direction général bi au lieu nga dem ànd ak gujaa bi syndicat la ngay syndicat nga préféré ànd ak direction général may wax ni Dakar dem dikk ku ko masa xam ci coow nga ko mas xame xamee hmm. su pënu masaan a toj sax ñu grève bu weer sukee ñu grève ma nekkoon ci biir nekk charge de revendication keroog ba ma téye lenge yi nekk secrétaire général laa ni faire du syndicalisme autrement Mmh. slogan boobu laa indi Dakar Dem Dikk mmh. ma gën ni rek tey directeur général bi du sama noon mmh. dañ ko ñëw nome ko pour mu yëkkati kër gi travailleurs yi tamit nom euh, falma pour ma yëkkati kër gi kon war nañu mën a toog di waxtaan parce que dafa am lu ma moom am lu ma moom am lu ñu bokk war ko waxtaanee ma préféré woon ànd ak direction général bi parce que syndicat dafa war a collaborer man damay collaborer parce que ay partenaires lañu directeur général bi ñuy wax Moussa Diop parce que dama war a wax Sénégal déglu ma parce que tey ci Dakar dem dikk ñetti at yi dañ nañ ci loo xamante ni tey maa war a wax. te su ma waxee dañ xam ne maa war a wax. waxal direction général bi. bi Moussa Diop ñëwee dafa teg feuille de route. woonu ñun ñett secrétaire généraux yi man Jibi Gueye Ndiaye Goudiaby mu ni nii laa fas yéenee liggéeyee dama bëgg lépp lu ma fi fekk muy ay protocole d'accord lépp lu ñu war a fay fas yéene naa koo fay. waaye dafa am ay priorité gasoil salaire IPM lépp lu ñu mën a fay ñu fay ko lu ñu mënta fay ñu xaar ba man koo fay fay ko ne maa ngi ñaan yàlla mbugguma ñu am problème mais saa yu ñuy am problème dinaa fexe ba problème bi du jugee ci man sama nawle la gor la may gor kon dinaa fexe nu may bañ a xeebee mhm. ci jug nag ñu ànd di dem ñu def a an deux ma xëy rek gis syndicat benn bi. ban tëb gujaa bi <laughs> ci digg bi parce que war a leer. jóg di wax loo xamante ni dañu toogoon def benn pacte ñun ñett secrétaire généraux yi. Mhm. nañuy xàccandoo di dóorandoo ma xëy dégg ko ci presse bi muy wax te tàgguwuma ma am sama fula. Mhm. man gis ni kii lii muy wax. Mhm. di ko jëmale ci directeur général bi. loolu amul parce que heure bu ne. lan wax mën nga ñu ci ñam mu doon wax mooy kii avocat la xamul dara day daaneel kër gi. avocat rek xamul dara day ma ni boobu lan la lan la gis. booba non booba la mu gis li ma jàpp mooy un oppo moo doon wax. Hmm. parce que moom politicien la. Hmm. un euh, waaw adjoint maire la un opposant moo doon wax. man it ma xam ne ni comme que am naa ci part de responsabilité naa jël samay responsabilité ci laa génn ñëw fii ak fépp wax. Hmm. ba ñu waxee nag yaakaar naa ni coow la fu mu mujj woon ñëpp xam nañ ko dal dafa amoon. parce que dama ni directeur général bi dara du fi yëngu. parce que booba ba ñuy yi man defar naa ay liggéeykat yoo xamante ni. tey xam nañ fu ñu teg seen tànk ba grève mënatul am defe naa ba Moussa Diop ñëwee ba léegi déggatu leen benn yoon grève am man maa taxaw ne la récréation est li tax ma waxoon loolu tey ne maa war a wax. Hmm. dañoo jug di recruter. Hmm. recrutement yi. Hmm. waaw recrutement indi na coow. indi na coow. nu mu demee da ngeen nañ manqué woon personnel. war a recruter la parce que bi tey jii directeur général bi ñëwee. ku nekk xam na ni lay Wade moo fi nekkoon. car yi ñu indi woon muy car yu bleu yi. Mm-hmm. amul woon pièce de rechange. parce que pour nga am rechange il faut nga dem ba Chine def 60 jours moo taxoon attente bi une heure de temps une de temps et demi. Mm-hmm. mais bii ki nga xamante ni tey jii Moussa Diop na. Mm-hmm. yàlla def tey le président de la République indi 475 bis tout neuf. avec consommation 38 au cent indi ay pièces de rechange yoo xamante ni tey jii magasin yaa nga fees dell. am na conteneur yu nekk port fii may wax ak yow. yaa ngi dégg léegi ñu ñëw war a parce que bu kaar yi ñëwee il faut que ñu retourner euh, recruter personnel. Mhm. comme que ñoom nee nañ day daaneel kër gi man ma àndoon ak moom di collaborer ngir intérêt kër gi ak travailleurs yi ci la ñu ñëw ne dañuy recruter bañ ne dañuy recruter. c'est la première fois ici au Sénégal. Mhm. ma gis man capitale région. communauté rurale arrondissement département ba ci VA ba Fongolomi am na ñu fa jugee ñëw Dakar dem dikk li may wax ñëpp xam nañ ñu ñëw ñu ni dañuy jël jigéen. Mhm. syndicaliste boobu ne kenn du fi jël jigéen. lu tax mu ne Goudiaby lu muy bañ ci jigéen. parce que ah. daam Diop. moo doon ci jigéen waaw yow non defal naa lu tax mën a doon jël jigéen waaw xam nga jamonoy salvi waaw ca biir ñu ne non jigéen ñi attanuñu liggéey beeg yooyu jigéen ñi ëmb ak affaire yi xanaa moom xanaa moom ëmb lay compte waaw léegi gujaa bi lu muy bañ ci ëmb xaaral rek léegi non eggali rek yow eggali bi nga xamante ni tey ñëw nañ ne <laughs> dañuy jëli jigéen ah, ah. ñu ni du fi am parce que Dame Diop ñetti jigéen la jëloon waaw ñu arrêté ko mu taxaw mais kii moom. bi mu mm. ñëwee ñuy collaborer dama ne ko jëlal li man la jigéen man. deful ah dara ci parité tey jigéen ñaa nga nee fees hotel ñu wëlbatiku. Mm-hmm. ñu wëlbatiku. Mm-hmm. ah, ah Aïssatou moom sama jàmbaar jàngoog Aïssatou. Mm-hmm. mu ni damay jël handicapé. <laughs> waaw di ah. mu ne damay jël handicapé ñu ni ko masu fee am du fi am parce que ñaari handicapé. fi ne lu tax ba masu fee am tam mu mën a nekk receveur. waaw <laughs> jeex na ah quand même tey handicapé yaa ngi nii. waaw di liggéey. mu retourné waat mu retourné loolu yëpp man maay collaboré ak moom lu nu bëgg def ci social ñu wëlbatikuwaat ne conductrice bu jigéen maanaam jigéen juy dawal bis ñu ni laa ilaaha illallaah loolu mas ko am Sénégal du <laughs> man ku ma xam-xam ne ni expert la en sécurité routière ah. bis bu daanoo mën naa def expertise bi wax la lu ko daaneel uh-huh. parce que tey mm-hmm. ñun ay sénégalais lañu mm-hmm. xarañ nañu xarañ boo xamante ni xëy na moyen la ñu amul waaye yàlla may nañu xel mm-hmm. anglophone yi boo demee ay conductrice yu jigéen a fa nekk waaye ñu ngi sax ay ruupee yoo xam ne ay jigéen a ko yor. mais man de loolu moo tax mun a jigéen bi jigéen yaa ngi ne ma indaale. ah waaw ndax guddaa bi lu muy bañ ci bay damay defal naa ko waaw defal naa ko Moussa kii sëñ bi guddaa bi lu muy contrer jigéen. moom jaaxal xam nga ñaar moo am. ah non mais guddaa bi ñuy jar jar na génn. yow moom bu guddaa bi nekkoon fii doo fi liggéey. yow xam nga jaaxal dama bëgg li ma leen di wax. waaw ku mu moon na doon nga dellu ca Dakar dem dikk ah ci télé ngay li ma lay wax nga demandé ko. dëgg la hmm? ay ca ñu lay dégg. kon tey. waaw ma collaboré ba loolu lépp am. Hmm? kon lan moo des léegi. Hmm. travailleur war nañoo gis seen bopp. fii may wax ak yow. Sotrac. chef de gare. masta nekk M4. M3 la daan doon. chef lancement M3 la daan doon. régulateur M2. mais sama collaboration ak directeur général bi. tey chef de gare M4 la. chef lancement M5 régulateur M3. kon daal yow ci li ñu jàng ci li nga jot a développé nii. waaw lépp loo xamante ni naqari woon na. travailleurs yi yaa ngi collaboré ak directeur bi ngeen ciy juboo yàlla di ko saafara yàlla di ko saafara kon fi mu ne nii Dakar Dem Dikk amatul benn problème. dama ni fii may waxal ak yow. du ma wax ni amul benn problème. Mhm. parce que problème yi du jeex. Mhm. <laughs> waaye du gën a neex. mooy un travailleur. bu fekkee dafa nekk ancien. Mhm. def vingt ans trent ans. am expérience mhm. am ay compétence sérieux mhm. mhm. kooku war na mën a jàll sans concours tey waa Sotrac Sotrac lañ ne woon ba Dakar dem dikk directeur bu ñëw concours pour promotion am syndicaliste ba fa nekk moo daan jël ay nitam ñu koy wàccee bi directeur général Moussa Diop ñëwee ma ne ko ñii am nañu expérience yàgg nañu mu ni ñan mu ni waa Sotrac mu ni ne mañ ma wàcceel ñëpp ñëpp la ñu wàccee léegi ay chef recrutement bi léegi man c'est que béti benn affaire laa bëgg mm-hmm. c'est que man li nga si Dakar dem dikk c'est bien mm-hmm. expliqué nga ba wax mais man c'est xam nga ne nga joxaat nañ leen 404 man Dakar dem dikk musuma dégg li ngeen liggéey yëpp nag mm-hmm. fu ngeen jëlee seen fond bopp jënd kaar yéen da ngeen di liggéey di perte wala ngeen di liggéey di séddoo man affaire bi jaaxal na ma quoi vraiment yéen sept jours état mooy jënd kaar musu leen a jënd kaar ah. lu ngeen liggéey lekk ko waa très bien. waaw li nga wax. Mhm. dëgg la xam nga takkaa dem dikk. Mhm. tey. 76 pour cent état bee moom saa yi noyyiwaat waaw la dafa pour cent état bee moom lu ci def ay actionnaire ñu dugal seen xaalis 76 pour cent état bee moom état bi moo ni. doo Dakar dem Tëngéej bu waroon nekk téeméer def leen ko ñeen fukk 300 francs yi maa la koy jox. état ko wax mooy compensation subvention bi. Mhm. kon ñun. dawuñu pour bénéfice. da ngeen di pour mu leer. Ah. léegi nag ci li nga wax nii. Ah. ci la ñu dem sama collaboration ak tey. directeur général ma ni ko. Mm. état du fekk fuy tàkk muy fay fuy saxaar. Mm. détournement d' objectif lay def su ñu waroon a jox un milliard. Mm-hmm. tey étudiants yi ne fii. Mm-hmm. wala tey les les enseignants là. Mm-hmm. gën a priorité da koy yóbbu foofu en attendant. kon ñun li ñu war a def mooy liggéeyal suñu bopp. ba man di fay suñu bopp mën a jënd su ay carte te incha allahu rabi bu ñu demee bi ci biir mm. ci foncé bi buñ ci duggee ma wax leen lu waral tey loolu am kon daal recrutement bi fàttali ñaata la ñu recruté fi mu nekk euh, nii war nañu toll ci ay mille et quelques recruté ngeen ci recrutement ah, lépp tey jii Dakar Dem Dikk man naa ni tey ci Sénégal lim fi hmm. recruté mu kenn mësu ko recruté waaw parce que yow man xam nga lu tax ma ne Dakar Dem Dikk neex na ah. saa hmm. surtout ci moom bee passé bi mu fii ñëw dafa yooy lex yi dugg waaw dangaa yooyu mais tey dafa costume leer nañ <laughs> ayca ñu jàll nag ci Karim <laughs> Karim Karim Karim fatt nga ñëpp Karim lakkale nga Karim télé boo ubbi rajo booy déglu gis ci Karim xurum xaq maam Ndaw homosexualité mais Karim yow te may ñu jàmm tuuti <laughs> Ah, Karim affaire Imam Ndaw noo ko yenoo nii rek di daw moom lan la da nga ci gis injustice wala lan ah. Sali Sali eh, d'abord dama ñëwaat pour wax ni <laughs> euh, Sali bii ñun ñun dañu dañu nekk ay jeunes rek yoo xam ne dañu bëgg suñu dëkk. bëgg eh, bëgg a marre seen dëkk a dañoo nekk ay jeunes bëgg suñu dëkk. bëgg bëgg bëgg bëgg aussi sàmm valeurs yi c'est-à-dire bëgg li mag doon doon fii maanaam sàmm donal yi ni koy waxee maanaam li Serigne Touba bàyyi fii maanaam li alaaj Malick bàyyi fii sàmm ndono li moo tax ñu bi ñu xoolee gis ni buntu bi nga xam ne prox doole bi àdduna bi di ibbi convention yi suñu réew yi di signé fële ca daje yi ñuy daje ca ONU ak yooyu mais yooyu ñuy nangu ay góor jigéen ay appartement médicalisé yooyu yooyu su moo supérieur suñu constitution maanaam suñu njiiti bu ñu demee foofu lañ fay juboo bu ñu ko xasee ba d'accord rek loolu moo supérieur suñu constitution donc yooyu dañ koy dugal suñu réew yi donc ñun bu ñu jugul wax xupp ko wan euh, opinion internationale ne la ñun suñu réew kat valeur yi lañ fi bëgg après da ngay jékki-jékki gis Modou mu ne la Pathé laa nopp dañuy sëy ñun ñaar da loolu moo waxee la waxati xam ne c'est-à-dire man ma te pourtant ba ba léegi boo seetee bi ñu commencé di xeex li ñuy xeex yëpp mooy dañuy jëm a fexe jëmale affaire yi ci diine parce qu'on a compris que problème mu àdduna bi yëpp li tax réussir ñu mooy dañoo bàyyi li yàlla wax nekk seen xalaati bopp maanaam par exemple bible bi téere la bu yàlla jox yoon ci àlla insa mhm. mooy constitution alxuraan moo war a nekk constitution bu juliti c'est-à-dire ñun waxee ko fi ñun jël lu ay nit xalaat di ko doxee di ko waxee nit day wàññeeku nit day dee nit day bëg nit day juum ni day nekk lu nekk mm. léegi yooyu yëpp ay boo seetee constitution yi ñu tëgg fi yëpp ay daanaka ay góor jigéen ak formation ko tëgg donc yooyu yëpp te loolu kàddu yàlla moo ko doon Karim Karim li nga wax nii yëpp mm-hmm. macha allah am na mm-hmm. solo xeex bi ngay xeex nii saa bàyyi ma yegal de ah, da nga ma teel a dagg ah, saa ah, saa da nga ma teel a dagg ma saa saa da nga ma teel a dagg ma demal demal demal ok léegi maanaam li ma bëgg wax mooy c'est que dama ñëw ci début bi juste pour expliquer rapidement pour wax rek dama ne <laughs> donc pour wax loolu nag moo indi moo indi moo indi imam ndaw moo indi imam ndaw la ne yaa ko dagg kat loolu moo indi imam daw cest à par exemple tey bu ñu xoolee imam daw ni jàpp nañ ko ñun dañ doon xeex ñun dañuy xeex sàmm valeur yi affaire góor jigéen bi mu ñëwee ñu gis nañ ko déjà góor jigéen di fexe dugal ay style ci mode yi fii boo xoolee xale yi ñu ngi sol ay xale ay xam ne day nekk mel ni tubay jigéen ay waykat di sol ay baraline di sol ay baa di gàddu sax ñu ne balaa ñuy segg repas ñu waxal ñu. <laughs> Eh, eh, waa fayil waxuma kenn sari dañuy waxtaan. saak waale waalee fi gàddu saak sari ah, nangu nañ nangu nañ loolu dafa combat woon rek. Mm. mais amuñu du ay personne de diw moo ñu intéressé. mais maanaam li nga xam dafa am influence ci société bi. moom xeex rek di ñafe. Mm. fexe bëgg assemblée nationale ñagal ñu suñu Sénégal comme ni ko Cameroun defee criminaliser homosexualité. gis nañ fi sept góor jigéen yoo xam ne Kaolack la ñu leen leen bi ñu leen ministre euh, kii Sidiki Kaba bi nekk ministre de la justice euh, euh, dafa wax carrément ne ci ci Sénégal ci kii bi binduñu si ne acte contre nature mun waxuñu homosexuel acte contre nature la wax mm. mais dañu mën ñu jug ne ko est-ce que mën nañu génnee góor góor di sëy ndax loolu contre nature mm. ça yooyu nekk ay mbir yoo ni donc lu jara am solo lu jara xeex la mm. parce que l'heure est grave bërki dem gis ngeen góor jigéen pétition lañ def pour ñu signer pour assemblée nationale pétition Sénégal dëkku Serigne Touba góor jigéen def pétition pour ñu bàyyi la am jàmm assemblée nationale voilà léegi eh, leen dàgg eh, daf leen dàgg eh, Karim man c'est que combat ngay xeex lu muy xeex nii béti waaw lu am solo la ci ñu xeex mbirum góor jigéen mm-hmm. mais man Karim pour man bon yow ni koy xeexee mënoon nga ko xeexee neneen à travers say musique parce mhm. que yow rappeur nga mhm. mais Karim yow fi mu toll bu ñu Karim léegi kenn gisatu la nga way sax lu jëm ci wàllu way mhm. léegi yow Karim Karimu kii nga quoi maanaam li ñeneen ñi war a def daanaka léegi yéen rappeurs yi amul benn son boo xam ne sax yéen a ngi koy génne pour dénoncer waaw léegi nag problème bi loolu la léegi yéen way dañ la dul déglu yi léegi lu tax nga préféré jaar ci yoon bi sanjoogu sanjoogu rap rap hip hop définition bi mouvement contestataire hip hop ay cër la. Hmm. pour nga comprendre bu baax. maanaam tey rap bi may def maa ngi koy def. mais activisme bi dafa bokk ci biir hip hop bi. léegi nag ku doon dem ci yàlla dajeeg yonent bi yow looy daw bay daal. dëppal hmm. c'est-à-dire tey man man rap bi may def di ko def ci sangoon yi. ni may waxee lañ may gën a déggee. léegi rab yi maa ngi leen rabal. Hmm. ñi man tey man ay imam laay toogal ay jàngalkatu daara ñooñu duñ déglu musique. li ma ko may tey mooy lan parce que damay taxaw wax ci li may ma rap ko ko aussi ñu koy dégg. waaye mais dama bëgg nga ñëw yow affaire imam ndaw dossier bi xamoo fond bi. xamoo ndax liñ koy jiiñ moom la. maa ngi yow a ci yam xamuñu ndax du moom. Mhm. ñu téye ko nga porté combat bi rek. Mhm. di daw lu ko waral. Ah, da nga xam imaam ndaw wala da xam ni ngi koy jiiñ du dëgg wala lan. bëti dama la wax benn affaire c'est-à-dire mhm. ko topp presque un an balaa ñuy wax. xam li ci nekk. balaa ñuy wax parce que bi ñu jàppee imaam bi ñun yëg nañ ko. ñu nekk ci di fréquenter imaam yi di fréquenter avocat yi. topp dossier bi comme ni ñu toppoon affaire xale Colobane attention ah ñun ay responsable lañ tooguñ ci télé bi rek di wax lu ñu de ah. mm. te pour mu imam mm. ndaw kese lañ de am na yeneen quarante quatre jeunes sénégalais lañ imam ndaw bu demal ci internet nga tapé imam ndaw mm-hmm. imam ndaw mooy le imam bu taxaw ne def discours di wax ne les lois positives et les lois négatives mooy li ma fi wax léegi ci charia bi alxuraan mooy constitution mm. ak constitution tubaab bi ñun ñu doon constitution tubaab bi teg ko di ko imposer imam Ndaw moo njëkk def discours di wax laïcité mooy lan. Mhm. c' la religion de ce système. la mu doon wax. ne dama bëgg li ma wax dafa leer dama ne. Mhm. dama wax lu leer imam Aliou Badara Ndaw dañ koo tooñ. Mm. li tax ñu tooñ ko mooy. Mm. Serigne Touba bañ koy jàpp. Mm. ñaata Serigne ñu nekkoon Sénégal. waaw ah, abe ah, eh, bu ma bu ma dugal ci ay angle. waaw Karim. non du ma la wuyu. ok mais ok léegi dama ñëw. waaw dama ñëw ba tey xam nga waxuma ni. waaw sëriñ yooyu waxuma ni sëriñ yooyu def ñu leen war de. mais ku nekk da nga ci am sa waar. Mhm. Sëriñ Touba bi ñu koy bindal noir sur ci acte bi xool dañu individu bi ko ñu ko wul ak askanam askanam du ñu gën république duñ ko gëm te république ku ne xam nga ni diine la diine maçonnique la. Hmm. république waaw hmm. dina mas waaw parce que dañuy waxtaan dañuy waxtaan waaw république dina maçonnique la ndax ñëpp xam ne révolution française li ko indi hmm. mooy dañ dañuy dindi lépp loo xamante ni mooy yàlla ci ci ci nguur gi ci ñuy doxale réew mi teg ko fële loolu moo indi république franc-maçon ji samp seen laaf donc maintenant dama ne Serigne Touba loolu loolu moo taxoon imam bi loolu la comprendre imam bi dafa comprendre ne ah Sénégal kat jot na avoc mu ne avocat jullit député jullit président jullit ngeen di sàggan nekk ci laïcité mu ne mooy garab bi meññ góor jigéen mooy garab bi meññ prostitution Sénégal nga dab jigéen muy jaay boppam wan la carte nga ne ko légal nga demal légalité boobu fan la boo ko toppee astufal la tudd papam Ibrahima Diop kër jullit la dëkk mm. ñu ne ko légal nga te ñun ñëpp ay jullit lañu ñun nangu loolu noonu imam bi lii la kon lu tax ñu ne apologie wu terrorisme lay apologie terrorisme boobu nag leneen la maanaam tubaab bi ñoo ko créé apologie xam nga mooy lan mhm. mooy xirtal mhm. ina diina ina allah apologie la alxuraan ci boppam la tubaab bi mhm. xool la leen ci arrangé wul ñu ne lii apologie la Seydina Mohamed salaa salaam moo gën ñëpp apologie la apologie boobu nag yow yaa koy nangu rek mu nekk apologie si yow ah mais nous les musulmans kenn tere wax Seydina Mohamed moo gën donc kon apologie d'accord yaa ngi xeex aussi jëmale ci homosexualité mais mais homosexualité xam nañ ni même bu ñu amee Sénégal mu woor ni ñu am nañ ci làq du fi dox wala yow de euh, pétition bi ñu yóbbu woon di ko signé ak yow yow léegi dañuy fa Macky Sall dafa ñëw xam nga bi muy def référendum bi mhm. bi mu njëkkee référendum bi mu koy def mhm. daf ci defoon euh, genre euh, loi yi dafa am loi bu mu dugaloon di expliquer affaire genre mhm. xam nga nouveau droit yi bi mu defee nouveau droit ñun dañuy dem ci sëriñ si boole ko. mais ni ngeen ko interprété ak ni mu ko jàppee moom du noonu. yéen a ko interprété noonu dinaa ñëw c'est wax bu yeggul xool Lamine du wan mborom moo tax ñor. eh benn Lamine wan na fi dem xaaral xaaral ma yegg rek saa xaaral ma ñëw rek saa c'est-à-dire xoolal c'est-à-dire bi mu defee nouveau nouveau droit yi ñun dañ ko gis ñu dem si parce que nouveau droit yi ci la adduna bi yëpp dugal góor jigéen hmm. ci loi yi adduna bi yëpp ci lañ dem gis sëriñ si wax lañ ko waa Touba si doom Serigne Abdou Lahad macha allah def conférence de presse wax Macky Sall dindi intangibilité hmm. dindi nouveau droit ñu dem di dem ba mu jëlee Sidiki Kaba bi nga xam ni bi Abdoulaye Wade jàppee góor jigéen Mbaaw moom moo bu rob avocat ne communiste ci nga xam ne Macky Sall mi pareegul programme bi ak góor jigéen pareegu ci mm. mais ñu taxaw temb rek gis mm. euh, de la femme de la famille et du genre mooy lan ah, du genre du genre demal nga tapé Google nga tapé lan mooy genre genre mooy tout ce qui homosexuel bisexuel transsexuel ah. maanaam Sénégal actuellement am na ministère bu non non defal ndànk Karim yee wax garaaw na parce que boo nee Sénégal am na ministère góor jigéen loolu wax la ju garaaw. saa ci télé laa toog de. tamaay wax man. non bu ñu la yóbbu ka yow la ñuy man sama yoon newu yow da nga a dugal nit ñi yaa ngi dégg man ma dugal. waaw waaw waaw léegi. Mhm. léegi euh. yow est-ce que du seen interprétation la. déedéet da nga sa ñaar politique dafa am ñaar. dafa am euh, sa politique en sa diplomatie bi nga doxal en sa diggante yow bitim réew. Mhm. mooy la ñuy wax ca ca daje yeeg ONU yeeg yooyu. am loo xam sa diggante ak sa réew la. réew bu nekk am na ay réalité boppam Euh, nga dund sa réalité dund la waa dëkk ba gëm nga doxal ko politiquement wala nga bañ ñu def la état délinquant état délinquant ni def yaay jame maanaam beddi la léegi pour nga bañ ñu beddi la nag ngay dund ca meew mag ñu lay dural ak yooyu il faut nga ànd ca tubaab bi di ànd tubaab bi seen loi yëpp ngay dégg ay droit de l'homme ay constitution yi ngay dégg seen ONU yi ñuy tëgg yëpp mm. ñoom la ca jiitu mooy droit de l'homme muy góor góor dañoo war a sëy ba mu neex allahu akbar jigéen jigéen dañoo war a sëy ba mu neex loolu doy na tubaab bi dañoo gëm loolu di ko wax muy jëm kaw léegi nag mais loolu il faut ñu wax ah. Sénégalais yi xam ko maar day taal wax subhaana laay ay lii wala sa sa bu fekkee ni léegi boo demee Google nga tapé du genre dina la xamal dina la xamal ni la mooy tout ce qui. Euh, mais ah, mais mais loolu même bu fekkee appellation. est ce que ñi duñ duñ euh, taxul góor jigéen am problème dem foofu. Mhm. wala ñu ñu wu carrément publiquement mhm. nit ñi di leen gis. Mhm. ñu sañ a sol leen neex sañ a maquillé sañ a teg def lu leen eh, neex. wala sol ko yi sol léegi du sol góor ah, jigéen. ah ñu ngi koy commencé de li Karim di sol yu racté gu booy. mais loolu taxul ñoom ñu est ce que ñoom xam nañ yow li ngay def nii. est ce que nekkul ni da nga leen di xamante bu ngeen jaaxlee fee ngeen jëm. déedéet dañ ko xam ba noppi programme la seen agenda lañ a mais fii lañ jógee jëm fële ñun dañ ko lijjanti xam ko leen dogaale loolu la de sénégalais yi conscient wuñ ci loolu mais pétition bi góor jigéen doon def dama waral pétition dem nañ ba xam a naa ko seen uh-huh. signé man lenn xam naa ko gis nga góor jigéen Sénégal fii uh-huh. du fi am Mhm. non du fi am parce que ñun sunu kii Macky Sall mi ngi ko officialisé nii quoi ndànk ndànk bu wax Macky Sall bàyyi wax eh, mm, mm, booy bi da la ministère il faut nekk euh, ma mm-hmm. mu ma Karim muus mm-hmm. ak geen gi mm-hmm. muus ak geenam muus mu wëñ bu nekk ci ginnaawam lool du wëñ geen la faut appeler chat par chat kaña par kaña sénégalais yi comprendre li xew. merci ñu ñëw. Karim noppil. ñu ñëw dem Sidi Dia. wala <laughs> léeg-léeg mais ñun chaque vendredi ñu am benn client. Karim Mberena Fall euh, ñu ñëw nag euh, ci euh, Moustapha Moustapha Moustapha ak waa groupe digital SA Diagonal Diagonal SA voilà maa ngi naan digital rek Diagonal SA mhm. mooy li ëmboon Sitidia mhm. mais si Sitidia gannaaw ba nu ko jaayee au champ mhm. yéen dañ leen a dàq ngeen nekk au nombre de cent cinquante une personnes lu nañu dàq leen ah day doon nelaw ci kii ah biti loolu nag moo ñu jaaxal luy ndi njaay mi ba hmm. pare waaw kay balaa dàq bi bala dàq bi. waa mooy que ñun dañu ne woon Sitidia di fa liggéey mooy entrepôt. entrepôt jaar buñ ko waxee ñaari pàcc la. pàcc bu njëkk bi mooy magasin yi. Mhm. deuxième pàcc bi mooy entrepôt. Mhm. magasin yi mooy boutique yi. mooy mooy mooy mooy neuf magasin mooy nekk Maris Port Almadi Nord Foire Plateau. Scat Urbam Liberté 6. Mhm. donc mu nekk neuf magasin entrepôt bi nag. foofu la produit di jógee di dem ci magasin yi mhm. donc entrepôt bi liggéey bi yëpp falay falay falay falay falay falay jaar mhm. donc produit yëpp fa lañ koy préparer muy soog a dem magasin mhm. ñun nag dañu toog benn bés mooy euh, le 21 septembre 2017 bi vers 15 heures suñu directeur entrepôt bi ñu koy wax René Pierre Diatta mu ne ñu dañu am ñoo pour te dire que ne ñi ñu doon liggéeyal respecté wuñ mooy mu woo ci biir entrepôt bi ne ñu dañu am réunion à 15 heures. 15 jot ñu ñëw foofu open press lañ koy waxe ci ñun noonu ci ñu langage boobu la ñu utiliser suñ biir. mu woo ñu ne ñu dafa am xibaar ba mu ñuy jox. mu ne ñu Citydia a été vendu à Auchan. Mm-hmm. loolu la utiliser. Mm-hmm. bi mu waxee loolu mu xamal nañu quatre-vingt-dix pour cent du personnel. Mhm. dinañ leen transférer ñu jëm Auchan. quatre-vingt-dix pour cent pour quatre-vingt-dix pour cent. d'accord presque ñëpp la parce que tamit bi muy wax ay doomu aadama la doon waxal. waaw ñun tamit dañu am loo xam ne tamit moo ñu tënk suñu directeur moo doon wax ak ñun. ñun ñu jàpp loolu. mais des na dix pour cent ba tey. des na dix pour cent effectivement. Mhm. ci loolu ñu dem ba ci kanam mu ne jaayayul dafa sédde. muy muy muy muy cessation d'activité mhm. donc pas bu ñu def rek ñoom am na benn ndëgg sërëxal bu ñu ca teg mhm. donc biñ xamee ne affaire yi mu ngi ëpp loxo ñun si lañ convoqué suñu syndicat mhm. syndicaliste ñu koy wax seeni mbay njaay moom yéen moom seen adhéré ngeen ci syndicat. si contrairement ak sama gars yi parce que ñun. ñun ay suñu contrat moo nekk nii. Mm-hmm. contrat maa ngi koy wax. am nga tamit am nga tamit këyit. ne ko CDI la. kii ak ah, ah, CDI ah, donc pour vous dire que ne lii dafa grave. d'accord mm-hmm. ay tàllal ko nii ci kii c'est grave nii. Mm-hmm. waaw. ay CDI la. na camarade yu yii yëpp. waaw ay CDI lañ jugee foofu. donte am na ay CDD mais bariwuñu. waaw donc yow naka ngay mën a entreprise. ah mm-hmm. muy actif ak passif lañ wax mm-hmm. Mm-hmm. sooy jaay da ngay jaay actif bi jaay passif bi mais avant ñu ñëw si jaay mais si ti tijaay bu eggee fii kan moo koy gal foofu noonu yéen employé yi liggéeykat yi employé yi ah. ñun waa entrepôt ñun ñoo tax parce que Auchan doful bay jënd loo xam ne dafa am problème dëgg la pour vous dire ñun bi ñu jógee si mois du du du ramadan juin passé xam nga la mois wu ramadan bi mooy que bu yëpp bi mois bi yëpp jàllee directeur bi daf ñu woo ci entrepôt bi nañu ba mois de ramadan di nekkee mois de ramadan ba léegi li ñu jaay suñ koo jaay hmm? mais yow trois mois ñu teg ko si nga bëgg jaay entreprise bi ñu ne da ngaa jaay nga ne jaayoo da nga da nga sede hmm? voilà donc loolu la wax d'accord si biir cessation boobu noonu ñu ne ñu parce que Diagonale quatre cent quatre-vingts boo boolee magasin hmm. ak entrepôt quatre cent quatre-vingts employés léegi ci 480 yi 151 yi ñoon ñoom lañ licencié par motif économique mooy licenciement abusif hmm. mais yeneen le reste des cent quatre des quatre cent quatre vingt. Hmm. jël nañu ñooñu dañ leen trans dañ leen transféré à Auchan. Hmm. mooy ñu nekk si magasin yi. d'accord donc ñun. kon yéen ñu nekkoon entrepôt yéen lañu dàq. ñun lañ dàq. entrepôt bi entrepôt liggéey. lépp foofu. entrepôt yi mooy produit. produit fa lañ koy préparé mu dem ci magasin yi. fa ngeen di taf kii quoi. bu bu yi bu ñu jëndee. waaw léegi Auchan ñoom xam nga la moo tax ñu dàq leen yéen. xam nga la moo tax ñu dàq leen bu ñu jëndee. Hmm? bu ñu jëndee. ci fournisseur yi ñu ñëw indi produit yi. xam nga tax ñu dàq leen. Auchan bagage yi muy indi taf nañ ko ba pare. bu ñu bu di soxla ñi di taf. bu ñu parce que duñ leen fa teg ngeen di teppi. non du tout. ah waaw dinañ <laughs> waaw léegi léegi moom na ko leeral produit si fournisseurs yi waaw bu ñëwee mmh. ci entrepôt bi mmh. ñun ñooy réceptionné mooy am na ay matériel yu ñuy liggéeyee ay mmh. terminal lañ koy wax ñooy réceptionné produit bi mu ñëw donc magasin yi def seen commande commande yooyu noonu ñun bu ñu xëyee moom la ñuy jox par fiche ngeen livré ñu ñu ñu génnee commande bi. ñii ak ñii ñoo bokk même cas. ñii ñoo doon yóbbu puus sario yi ci kii bi ñii ñoo doon puus tamit. mu dem ci kii bi même chose. ñun puus amu fa seen problème. non non puus amu fa saa njóogu. non bu dul puus daanaka puus la rek waxi na quoi ñun. ñun fiche lañ lay jox fiche waaw ngay liggéeyee. waaw mais ñii fiche lañ doon liggéeyee bagage la n'est-ce euh, moom la ñu wax réassort ah? benn la rek réassort fiche yooyu la ñu wax réassort. Mhm. donc boo xëyee. Mhm. moom ngay ñëw ñu jox la ko. Mhm. magasin bi commande ci lay nekk. xam seen programme donc boo amul benn bagage intellectuel bi mënoo ko. donc ñun newuñ ay ay ay foofu noonu rek. dañ fa nekk. jaay ko suñu doole waaw que mën nga ñu wax moo tax Siti Dia jaay ko. mais ragal concurrence rek. parce que luy ragal concurrence mais moom mi ngi doon dox. waaw mais c' ça. Mhm. parce que li mu eh, wax dëgg ragal ko mais autant yi ñëw rajaxe leen nga xam la parce la ragal concurrence la li ma lay wax ni moom moo ñu ko directeur bi ma lay wax jour bi ñuy jaay mhm. wax nañu ne dañu xalaat fii trois ans Auchan dina leen da leen lekk mm. loolu la ñoom loolu seen affaire la ñoom ñoo ko jaay mais ñun moom dañ leen a war a fay parce que da ngeen am ay këyit. mais léegi CDI yi est ce que est ce que CDI yu baaxoon la est ce que du ay këyit. waaye yow tamit ay ay ay lañ. ay père de famille lañ. Mm-hmm. lii suñu droit ci réew mi xam nañ ko. waaw mais Moussa xamuma man la mooy sama problème xam nga yéen da ngeen a yor seen i këyit bétti. Mm-hmm. ñii yor nañ seen këyit yor nañ seen lépp mm-hmm. mais seen xeex man dama gisul ngeen yëngal quoi vraiment parce que yéen dañ leen a fekk ci seen droit mhm. ba noppi dàq leen teg leen fële mhm. yaa ngi mais boobu ba nëgë ni seen xeex bi mais dafa nooy quoi da nga naan non sama lu tax xeex bi mëntoon a gën a dal ñoom grève buñ defee defuñu dara gisee responsable ba dañoo tàmm lekk gu neex nag gars yi mhm. mais ngeen waxtaan ak wax responsable Citydia yi nga xamante ñoo leen defaloon ay ah? CDI ak ay CDD waaw kay ngeen toog ñoom waxtaan laaj leen xam nga xam nga Sanjoogu wax na ko xeex bi moom moom nee na xeex bi dafa nooy effectivement dafa nooy waaw nooyul sax Sanjoogu ah, dafa dafa lan ngeen defagum lan mooy seen plan d'action depuis booboog léegi fan ngeen ci toll fan ngeen jóge ak fan ngeen tool lan ngeen def le 6 janvier bi passé rek si suñu maison syndicale maison mhm. mooy comme Dansokho mooy UDTS FO. waaw mooy suñu camarade Sini Mbaye Ndiaye jiite. waaw def nañ fa. Euh, waxtaan conférence de presse. dégg nga waxtaan woo euh, Somedo bi bi bi nekk fii. te woon na fa Théodore. ngeen waxtaan donc woo yeneen télé yëpp. Mhm. mais ñu. dénoncé fa acte bi nga ah, xam ne jot nañ ko def. mais après premier pas mooy premier pas après deuxième pas. dem nañ instant bi ñu ngi jàll. ñu ngi jàll ci ci ci ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi. Mhm. ñu ngi jàll ci presse. waaye déglu ma nag ah, Moustapha lii du xeex. waaye déglu ma noonu. waaw li ma ko laaj non non non. ñii dañoo xeexul non xeex dafa am lu ko jiitu. Hmm. moom laay laaj. lan moo ndax essayé ngeen toog ak autorité si siti jaay ba pare. responsable dañ leen wax wax na la ñuy def def na ko toog na ñoom toog na ñoom la pourquoi man loolu laa wax ak lan lañ leen wax lan lañ teg seen loxo ji nga bi ñu xam effectivement béti bi ñu tuddee loolu waaw xam nga suñu syndicat bi dafa ñëw direction mhm. ñu war a waxtaan def conciliation da ngeen a bëgg waxtaan nag ji nga ji nga fitna nga ji ñu bi ñu bi ñu ñëwee di waxtaan ak waa direction yi mhm. si lañ wax ne ñoom. dañuy dañuy préconiser dialogue social bi. d'accord moom moo leen di gënal. mais ndekete bi ñuy waxtaan loolu yëpp. ñoom ñu ngi am lu ñu lal si suuf. <laughs> voilà d'accord mais nit ki. déglu ma mhm. yow li la lii sa devoir. Moustapha da nga koy def rek. béti béti ma gis nga Moustapha li mu wax nii. Moustapha mhm. nee na ba ñuy njëkk a ñëw di leen annoncé. Mhm. waa ji sek wax juñ wax am na ay ndëgg sërëx yu ne ci biir. kon donc waxtaan bi jaratu ko. léegi yéen seen plan d'action bi yëpp mooy. conférence de presse ci kër googu seen waa ji mhm. moom ngeen def conférence de presse ak réseaux sociaux yi mhm. foofu ngeen bëgg a yem yéen dafa mel ni affaire méttiwul ci ah. grève leen defee non te bu ko laajee dañ koy def mais dafa am foo xam ne kii du grève de kii ñu naan ko pepe su nga bëgg mu naan maafe <laughs> du grève de fay waaw non mu ngi mu <laughs> aéroport. waaw ak ñaata ngeen di. ñii ñoom ñu ngi recruter ah, ñoom. Dakar dem di a ngi recruter. <laughs> dama lay ñaan rek. waaw ah. calculer ah. lu mu gàtt gàtt 1500 rek. waaw benn fii. kenn ku nekk am nga jabar wala nga am doom wala nga am yaay. waaw ci loolu rek. ak di nga jox joxe dépense. boole kii encore. waaw mais man. bu bu wax 150 de da ngay xool li seen ginnaaw. waaw li seen ginnaaw léegi ça dama lay laaj quoi. ngir yàlla rek Macky président Macky Sall fan la jëmee Sénégal non dem dikk ngi jël. non non non dem xoolal del wax loolu bul fàtte loolu du Dakar dem di rek moo fi nekk. waaw bul fàtte loolu. parce que moom moo toog fii nii. waaw bugguma tardé mais bu keneen bu daa dikk du ñëwoon toog mën ngaa dégg leneen. dañuy waxtaan rek. ah non non mais kii wax li mu wax li wax da ko teg fu waaw waaw waaw waaw man de sama gis-gisi mooy. Mhm. waaw balaa ngay woote conférence de presse. Mhm. am na kilifa yi nekk si. loolu laa ko laaj. fi ñuy war a jaar. Mhm. waxtaan ak ñooñu. ba pare xool ñooñu xelal la conseil la. d'accord fi war a dugg ak fi nga war a jaarul. waaw mais man sama gis-gisi Macky Sall. Euh, dafa am projet bu mu doon commencé Sénégal fii nii. waaw ku ñu ni ay mille cinq cent personnes wala deux cent cinquante personnes. waaw ñooñu mënuñuy xëy liggéey benn jour rek nga arrêté leen nga ne mënoo leen arrêté leen sans condition quoi. waaw loolu man yaakaar na ko président Macky Sall problème boobu noonu yëgu ko. d' accord man loolu laa yaakaar ko waaw dina ko yëgee mu réglé ko waaw non defal daal am nga lan moo tax ma ne bu ma mu ci bëgg a wax a ma yaakaar ni 2019 jot na mm-hmm. en tant que euh, président bi premier mandat la nekkee ni deuxième mandat bi jotagul yaakaar naa ñun duñu ay politique waxuma côté politique lay ñëw waxuma la côté politique ñun ay sénégalais lañ ay père de famille lañ war nañuy liggéey bu ñu liggéey pare ñu suturo suñu njaboot yi d'accord parce que Sénégal nag war ñu seetaan noonu waaw ñu ngi ñëw ci yow ku voilà dina régler problème dinañ ci ñëw sànni li ma ciy sànni en tant que syndicaliste di secrétaire général mhm. waaw yaakaar naa dañuy xeex ak ak yeleef mhm. kii tey CDI la yor mhm. am na centrale bu mu bokk kon yaakaar naan centrale bu mu bokk war nañu jug xam nañ fu ñu war a jaar xam nañ fu ñu war a teg seen tànk mm-hmm. ba seli ak balaa ñuy dem mais sa waay am na lu mu la waa Karim euh, dafa am lu mu wax dama eh, ko bëgg fii mu leer dama ni waaw <laughs> man déglu ko wuma déglu ko Karim balaa maa wax mm-hmm. damay dem ci ki ma war laaj ma laaj ko mm-hmm. mu wax ma wan ma preuve fii laa ko waxee ci Walfadjri lépp lu ma fi wax. Mm-hmm. ku mu neex nga dellu fa nga war a xoolee nga mm-hmm. xool ni may wax ndax am na amut. d'accord c'est bon ah, yeggaleel Moustapha bi nga nekkoon. zi nga ñii ñuy liggéeyal. Mm-hmm. muy waa Diagonal. waaw mooy Citia. waaw du du entreprise bi. ñu ngeen daan liggéeyal. non waaw dëgg la. du entreprise bi rek lañ tëj. Mm. ak ban am na yeneen entreprise yoo xam ne avant yan par exemple. mooy côté ne du Cap-Vert. waaw am na Armena am na ah. Sosefil. yëpp tëj ah, nañ ñoom ñoo ñoom ñoo nekkoon ci boppam suñu cas bii la dañ ko déclaré ay motif économique ba pare tëj ko. ah bon donc du du ñun rek. ana ñooñu ana ñooñu ana employé yooyu ba léegi seen i procès mi ngi mi ngi mi ngi en cours ñu ñu leen di dawloo. depuis ñaata at. yàgg na d'accord dinañ ñëwaat ci yow. léegi ji nga ji nga ji nga bëti. waaw ji nga même Sosefil bi ma lay wax nii. Mhm. dafa amoon benn DRH mooy bi ñuy décider pour pour tëj ko par motif économique. Mhm. DRH boobu mu ngi tudd François Germaine Gomis. Mhm. dañ ko ñëw proposer ko wax ko loolu noonu ne ko dañu bëgg tëj entreprise bi mais dañu bëgg déclarer motif économique mhm. moom dafa bañ lànk Hmm. mais keneen moo ko nangu mooy suñu dérage bi bi nga xam ne def suñu sal boulot bi ah bon muy Amadou Lamine Kébé Amadou Lamine Kébé sénégalais d'accord dinañ ñëwaat ci yow ñu jàll ci Aliou Sané Aliou seen situation fi mu nekk nii critique na mhm. parce que li nga ko wax Sénégal yaay liggéey salaire bi waaye du yow rek yaa ciy dund ñu ci topp bari mhm. donc yéen est-ce que xalaat ngeen ni état mhm. di ni bu ngeen nii ngeen entamé seen xeex bi ndax dana leen dana leen ñëw dimbali wala ndax danañ leen recaser wala ñu am nuñ leen defal man de sama euh, ñun am nañ jotu bu rafet boo xamante ne suñu message bi moo jàllul ah fu mu yaa ngi doog ñëw fi nga war a wax ñëw nga fi nga war a ñëw nag yeggalee ah, sa message message bi moo jàllul mhm. Mhm. ñun mënuñu nekkee liggéey mhm. cinq plus nga nekk ay père de famille comme ci lu mu waxee nii am na ñu nekk sa ginnaaw ay ñu yëpp ay sénégalais lañu am seen carte électeur war a wote may ma tuuti ma wax la war a wote yàlla mooy maye guur waaw mooy Macky Sall mooy keneen. Mm-hmm. man cadre bu ma lay waxee nii du cadre politique laa lay wax. Mm-hmm. mais carte kañ boo ko dugalee yegg. déglu ma rek. yow yaa ngi jëm ci forcé nit ki mooy man mooy sama morom laa wax ñi toog si plateau bi. Mm-hmm. dama bëgg a immédiatement. état fexe lijjante suñu situation bi. sinon bu ñu ko lijjantewul. ñun ay sénégalais du ñu gan fi. ngeen def mais Aliou. Euh, Aliou xam nga man buy lijjanti bét yi mhm. këyit lay lijjanti parce que état këyit lay lang këyit la mais bu dee amu leen këyit benn këyit boo xamante ni bii moo yegg ci état bu mu mën a sukkandiku pour liggéey fan lay jaar pour liggéey pour liggéey Sénégal loolu lay dundee kayit boo amul kayit nga liggéey cinq ans six ans sept ans. Aliou loolu nag moo du yoon waroo liggéey. cinq ans taamu kayit wax naa la ko sànq ci sunu. mais boo amul kayit ba mu la day day yomb kii kaawam li tax mu garaaw mooy dafa yor kayit. bu leer mais boo amul kayit. kon yéen ba ngeen est-ce que yow yaay defar sa bopp wala ñu lay yóbbu. ñoo lay ñooy defar kayit bi. Mm-hmm. dama lay laaj question boobu noonu. lan moo tax may dem si côté. parce que sunu réew mi na moo tax may dem si côté Pape Mayel. waaw Mayel social la def. la moo tax may dem si côté Pape Mayel. Pape Mayel depuis yàlla denc ko aéroport ba léegi. la bu neexee mu jël phase point 1. mais Pape Mayel fii ba Tambacounda ba Casamance. Mm. yamale na ñëpp ci aéroport. loolu ngeen xaj nañ bu leen yamale woon dina leen yamale am na ñu am kayit. Pape Mayel instant est-ce directeur AIBD. lan est-ce que moom mooy directeur AIBD. balaa muy jëlee situation mais nag mais nag seen situation mën na ci wax. suñu situation xam nga fan la ñu ah, situation xam nga fan la ñu hmm. situation. pourtant yaakaar naa na ko lijjanti maa mënul nekk. loolu xool déglu Karim waxal waxal ak Aliou. Aliou xam nga laa koy wax. kayit ak kayit mais kii société privée la n'est-ce état. ñun li ñëw ko li ñii tey seen message mën nañ kii mais kii amul kayit gàtt laa koy wax rek sëriñ bi ah. moom wax bu gàtt laa koy wax rek ah. Sénégal lañ nekk am nañu société privée même état daf ci am part parce que bu ñu demee inspection travail ñoo nekk seen cachet nekk si kii bi réew foofu ku jëlee inspection travail du état ok léegi kon mii yor CD yi toog di jooy kii mm-hmm. yor këyit toog di jooy ana njëriñu këyit ana njëriñu këyit effectivement ana njëriñu këyit Sénégal ñoom ñëpp a ngi jooy ah, waaw waaw waaw waaw comme ngay daanelee waaw non pare gu ma pare gu ma boo xoolee qualité Macky Sall la wax ni ñun ay duñu xale yi Hmm. yàlla dafa bindu doomu aadama ngay xalaat waaw lii xool lan mooy sa avantagement waaw ngay dox hmm. léegi jamono bu Ablaye Wade jógee fii Macky Sall ñaata procès la commencé fii hmm. Sénégal ñaata procès la commencé fii bari na boo demee si àll yoonu Casamance nga dem boo euh, Gambie tali bi baaxul. ki génn aéroport bi man non non man mi sax bu ma duggee si oto bi. damay énervé moom eh, ma xam ni lii du yoon. léegi président bi commencé projet boobu noonu ban dama yaakaar ñun sénégalais yi war nañu xalaat ni projet boobu noonu war na ko égaler ban projet ñaata tali la commencé route yow ay route moo la fi indi non wala aéroport problème waxuma la waxuma la route mais loolu moo tax ma ne bu ñu xalaatee président bi warul bàyyi père de famille yi mille cinq cent personnes amuñu fu ñu jëm fu ñu toll nii am na ñoo xamante ni seen école doom yi fayuñu ko waaw am na ñoo xamante ni li nga wax lépp lu metti la waaye fay ñu ko d' accord mais loolu est ce que lépp ànd naa ci ak yow est ce que eh, président rek xam nañu suñu situation waaw en tant que projet bu muy commencé est ce que xam na situation prestataires yi mille cinq cent personnes ñu nekk aéroport suñu situation bi réglé wul d' accord tey yaakaar na ko xamu ko bu ko xamee mu réglé ko Aliou d' accord ñu ñëw ci Omar Gueye Omar ñu ñëw ci euh, ku wax Dakar dem dikk jamono ji maa ngi lay tooñ naan la yéenay bës ci foncier suuf sax lu ñëpp bokk ngeen jaay ko oh là là li ngeen def lu garaaw euh, damay wax tey mu leer déglu leer dama wax ni mm, na leer gaaw dama bëgg mu leer dama ne la maa mën a maa war a wax tey maa wax maa fekkee démb maa fekkee tey mm. dama ni man damay collaborer ak direction général bi mm-hmm. waaw rek di xool jafe-jafe yi mm-hmm. di ko bàyyi direction ñëwal dama la rek mm. Dakar Dem Dikk ba ñu amee dette croisée mhm. nga xam état bi dañoo yoreel ñu ñu yoreel ñu ko méngalee mu war a des six milliards ñu war ñu koo jox mm. maa dem primature premier ministre sama bind lii mi ngi nii dans la six milliards ne ma six milliards joxe jox ngay dafa toog moom ma ah. ne ma joxe na instruction ministre des finances ak ah. ministre transport te bu neexee yàlla alal jooju na dugg Dakar dem di kon man collaboré ma direction générale di ko xool beneen bi mooy Sénégal dem dikk am na fi AID am na fi mm. te ba may collaboré direction générale bi loolu dara amu fi kon collaboration moo tax loolu am foncier mm. dama bëgg fii mu leer xam nga léegi dañuy wax sax dañuy junj man junj damay waxi tur dama ni mm. président Abdoulaye ba mu fi nekkee dañ koo ñaan foncier Dakar dem dikk ba pour ñu def ko suñu tur ñu bañ mm-hmm. booba man soo gis may tudd Goudia bi daa tudd sama tur ci benn journal de la place. dafa nekkoon P23 di receveur. Mhm. ma nekk P7 di conducteur. bu ñu mosaan xëy te ñuy jël suñuy feuille am foo xam cinq hectares la. Mhm. moom la ñu caxat caxatee seddoo ko seen biir état bi fi nekkoon fa lañ daan dem di jëli kaar yi ñu xëy dégg ñu ni dañ koy waaj a jaay. Mhm. boobu Goudia bi di syndicat majoritaire ñu xëy grève. perte vingt millions ca jour boobu ñu jaraloon ñu ko. waxoon ngeen ba ñu toogee ba mu yàgg ma xëy gis ñuy indi ay béton ci fer ma xëy gis ñu miire. Mm-hmm. ma gis kii jiitoon grève bi ne muut waxul. Mm-hmm. ma xëy cinq heures du matin wax ak liggéeykat yi ñu ma jugal SG. ma dem seeti Nafissatou Ngom moo fi nekkoon ministre transport. Ah. ma ne ko ña ngay miire suñu dépôt te duñ ko nangu parce que ñun on se réveille à trois euh, trois heures du matin cinq du matin. te foofu ñu ko nar a jaay ay sénégalais dong la ñu ni ay sénégalais nañ ñu ko jox ñu tax ko cité ouvrière. d'accord mm-hmm. ñu jaay ko. mooy suuf soosu la ca def. Mm-hmm. ba président Macky Sall ñëwee dafa fekk ñu sonn amatuñu ay car ñu tiit jaaxle. premier conseil d' bi Moussa Diop ñëwee conseil bi dafa ne ko yóbbu leen semence technique. Mm-hmm. mu ne bu ngeen ma fayee sama xaalis état du ma yóbbu kenn semence technique. ku wax loolu Moussa Diop Moussa Diop. maa ngi toog. gujaabee ngi toog ci liggéey njaay toog mm-hmm. foncé bi la ca desoon waaw Macky ni mu njëkk def dafa décroché ci waa ji Paris indi ko muy Moussa Diop mm-hmm. mu jox ñu quatre cent soixante quinze bis waaw ñu naan déet nag mu dóor ñu nag jackpot bi moom mooy lan foncier bi. Ah. parce que loolu ñu am bu ko Sotrac amoon du tëj. Hmm. Sotrac amul woon foncier. kon daal yow yow dam dama lay laaj pour yow daal jaay bi jaadu na. jaay bi. Hmm. dañoo toog mu Moussa Diop teg ñu ñett secrétaire général laaj na suñu xalaat. Ah. ne bor yi dafa bari IPM caisse sécurité sociale bu nañ daan dem suñu jabar yi dañuy dem ñu leen di dàq. hôpital yi ñuy dàq. mu ne hmm. nag léegi comme que lii eh, mi ngi fi. te état yore na joxaguñu damaa bëgg laaj leen seen xalaat. ñu xool lu ñu ciy cof jaay ko suqali kër gi jëndi kaar. Hmm. yaa ngi dégg su ko defee ñu fay bor yi. ñu d' accord accompagné ko. yéen ñett ñëpp ñu wax waaw. mu jël ko nag war koo yóbbu conseil d' administration. parce que mooy autorisé. Mhm. conseil bi autorisé ko li ma lay mat na at. tey ñu ñëw mhm. jaay benn portion bi mhm. benn banque un milliard cinq cent cinq cent mille mètres carré bi. biñ ko jaayee direction générale fi mu nekkoon ci biir xar. préfet bi indi benn arrêté. Mhm. ma toog Goudia bi toog Jibi Gueye Ndiaye toog DG wan ñu arrêté bi ne préfet bi nee na nañu génn balaa bâtiment bi daanu. ñu ne ko kon demal ñu luye ji mu luye mhm. tey beneen deux mille mètres bi. fa mhm. ñuy tabaxee euh, direction générale kon un milliard yi ñu ko jaay. trois cent cinquante millions mooy tabax direction bi ñu jël deux cent millions jox ko Goudia bi ndax syndicat am. moo gañoon IPM bi dañ doon dem élection mu ni jox leen ma IPM bi. dinaa leen faj yéen ak seen jabar seen doom ak seen papa ak seen yaay. ñu gëm ko jox ko ko. Hmm. mu jox leen deux cent millions fii may wax ak yow bañ leen ko njëkkee jox oto lañ njëkk a jënd oto fii may wax ak yow pharmacie yi eh defal ndànk déglu ma defal ndànk lu may wax ñoom gujaa bi ñoo jënd oto dama ni gujaa bi syndicat am ñooy diriger IPM waaw hôpital bu ñu dem ñu bëri dàq nañ ñu pharmacie yi neuf heures ñu arrêté waaw eh, eh, liggéeykat yi bu ñu génnee seen poste mënu ñoo xaar pour ñu rembourse leen ko day métti ñu koy demandé nag mm-hmm. suñu deux cent millions parce que dem naa ministère du travail mhm. dafa bëggoon a créer mutuelle de santé mhm. ma dem ministère du travail ñu convoqué gérant bi convoqué ma mhm. ñu ne ko xaalisu IPM kenn mën koo créer mutuelle de santé mu arrêté loolu ba mu arrêté loolu nag xamul fu mu jëm te huit mois ko desee mu dem retraite mu ne xaaral man dem ni tëll foncier bi su ko defee ma gëlëmal sénégalais yi def ah kon yow foncier bi day divers day kii nit ñi day dafa bëgg a yóbbu nit ñi fekk la lee mooy mbir bi foncier mais jaay ngeen xaar rek dañ koo jaay. Mm-hmm. APR xaaral rek excès ku foofu. alors ah, habitat yi gaawul temps bi non yi waaw dañ ñoo fay. ba mais te xaar rek habitat yi bañ ko fayee. Mm. moom dafa woon travail yóbbu leen relais ci saal bi nekk foofu. Mm-hmm. indi ñaari espagnol xaw ma port la leen. foree xaw ma lu tey sama xel waaw même wax lu tey sama xel dama la sama xel. waaw même wax lu tey xam nga foncé bi. Macky leen ko xaatimal. waaw moo leen ko jox. moo ko may ba noppi mu ñëwaat di jëndaat pour def siège APR. waaw loolu teewut xel. waa ki nga xamante ni nag mayuñu ba ah, pare ñëw dakkat ko ñu seddoo ko seen biir. ah dama ni fii laa koy waxee. waaw APR. association la. Macky Sall mi ndeyu mi ligi moom ci boppam déglu ma rek ñu a deelaale moom ci boppam ñun dañuy jaay ñu suqali suñu kër hmm. ba suñu jabar di amee problème ñuy dem ci hôpitaux yi suñu doom yi di dee ndax amuñu lu ko fajee ñun ñoo koy sentir kon nag bu ñu amee lu ñu mën a jaay dañ koy jaay fu mën appel d'offre appel d'offre am na loolu quatre cent cinquante millions moo am ma ma ni mm. quatre cent cinquante moo am mm-hmm. Mm-hmm. ak cent millions mm-hmm. benn banque de la place moo fay cinq cent millions mètres fay cinq cent millions mètres man ñàkkuma fulla ak fay dama ni DG APR ku mën a doon l'essentiel mooy la nga jaayee kee bu ko ëppul na nga ko ko jaay kon ma dellu si waat habitat yi bañ leen fayee dañoo wóorale mm. mu ni léegi travailleurs yi Mhm. dinaa leen jox clé en main. Mhm. leen ñoom ñëpp ñu cotiser. gis nga ba ñu cotiser. ah ba ñu cotiser. dañoo indi espagnol yi. Mhm. ñu ne leen léegi espagnol yaa ngi ñu naan gujaay bi doo nit nasaraan yi nga àndal ñu xees ñi. <laughs> mu indi waaju mel ni saa saa yóobu. bu ma waxaat naan mooy traduire bu espagnol yi làkkee bu espagnol yi làkkee espagnol yi lu ñuy làkk dina leen tabaxal. sempre arbeta correo ya biro. dina leen tabaxal un plus un. waaw donc jaadee ay un plus un. ca kaw nag ca terrasse ba. dina leen fa defalal ngeen fay bay salade seen jabar xam nga ni xam nga ni dégg ma rek billaay li may wax xam nga ni sama gars yi seen bët a muuru waaye ab terrasse. boo fa defee salade. waaw di ko brossé. café yàggee ma e eh, salaatu espagnol la merci salaatu espagnol la nag ah visite bi moom xam naa ne yiñ ci wax yëpp bu bu bu baaxee. Sénégal ci visite bi amoon dara la Karim xëy na macha ah? France ñëw na ak ay projet waxal gongo waaw léegi man damay laaj dama déglu leen Karim dañ ne nga gisee. au lu muy wut si. mais bu gën a dëgëral ni ñu mën a noote Sénégal rek. ak di sujet direct Sénégal non xaaral ma ñëw ba ci. ñëw koy leeral. mais Macky Sall dafa signé APE yi nga xamante ne ñëpp gis nañu. waaw waaw nga xam ne problème yi ñu joon yëpp APE moo ko hmm. France dégage. bi. parce may ba damaa soxla foofu. c'est nga ne France dégage. Hmm. mais boo nee France dégage. Hmm. dafa war a fekk ñi fi nekk mhm. depuis 1960 ba nëgëni ñu am lu mën a tabax yow boo nee boo déglu ma boo nee port français yi la boo nee palais français boo nee Dantec français a lan na nga ne même bu ñëwut du fay mais loolu la moo ko waral nga yaakaar saa ñu ko dañ ko indépendance boo xam ne économiquement ñun moomuñu bopp mhm. xam nga euh, euh, Macron lu mu wax. lu mu signé ak waa Russie. Euh, dafa la war a jox 2000 tonnes de uranium France amul uranium Niger lay jëlee uranium bi. Afrique lay dundee boobu léegi te ñun ñëpp xam nañ ko. Hmm. mais échange bi ngay fay. waaw téléphone pour am téléphone mais dañoo investir mais dañoo investir. mais ça rek mooy déglu amoo woon investissement boobu yow non non ça. amoo ko woon saa njóogu saa njóogu ah. nga xool olof dafa ni sooy rey as lëf nga dem ca ndey ja. waaw dama bëgg ñu d'accord ci point yi ni li may français yi ñu investir fii lan tey français yi gëm loolu ñu ni seen ñoom sax ñoom suñu sécurité sax ñoom ñoo ko yor. armée sénégalaise bi amul Macron bi. armée française anam moo nekk fi moo nekk fi. mais visitu Macron Sénégal. amul ah, sax laa expliqué nii. amul njëriñ Sénégal ndax France boobu ba léegi ba léegi Sénégal mi ngi bootu ci ginnaaw France. France jàpp ko di ko sucé di jël ressources yi di jël ressource africaine bi te xoolal benn njëriñ bu mu ñu jëriñ wax dëgg yàlla te gis ñu ci lu dul pertement ak dellu ginnaaw loolu moom il faut ñu accepter ko parce que dëkk bi fi mu toll nii réew yëpp réew boo dem gis nga Cheikh euh, comment il s'appelle Thomas Sankara. dama ko wax l'autre jour ma ne. Mm. daf ñu wan exemple bu doy. moo ñëw dindi France tànn leen caxaj ci ñeenti at mu ñafe dëkkam yamale français yi tàq leen fële di góorgóorlu di liggéey suufam. 4 ans mu def autosuffisance alimentaire góorgóorlu ne benn coton du jógee bitim réew fii ko koy ñawe forcé Burkina Faso yi ñuy consommé euh, Burkina Burkina Faso mais ñu génn ci ñu rey ko ñeenti at la ko def ñu rey ko. Mm. suñu président yi ñoom ñëpp ay marionnettes lañ. Macky ah. daanaka moom day gouverner pour la France. Eh, Sénégal gouvernement la France. mais mais moom rek moo taxaw ne CFA baax na pour Afrique te CFA xam nga lu mm. colonie franco-africaine. colonisation boobu du daj ana indépendance bi ñuy wax bu ñu jugee di fecc ka fecc naan indépendance indépendance est-ce xam ngeen 4 avril 4 loolu def leen naan 4 avril nga leen ko tey 4 avril anniversaire u pour Senghor la ah. Senghor parce que indépendance amul il est obligé mu jël jabaram neexal ko tubaab la ko ko cest dañoo jàpp bu mu jàmm France dégage dama lay wax béti juste rek pour wax lu gaaw mhm. mais même imam bi ñu jàpp sax imam Alioune Badara France moo wax jeune Afrique ñoo ko bind ne Interpol ñoo intercepté imam bi France ñoo bëgg ñu jàpp ko Abdoulaye Daouda Diallo nee na état du Sénégal jot na 80 milliards bi nekk ministre de l'intérieur hmm. milliards pour subvention pour xeex lutte contre terrorisme hmm. moo tax foog ñoom rapport mais mais aussi tamit France lañuy doxee moom lañuy waxee moom mais Karim hmm. dañu war xeex pour terrorisme tamit aussi parce que boo xoolee li dal ci Mali akay ah, dëgg Mali mais naka lañ koy xeexee sax waaw d'accord ni ñu koy man bon wax jàpp innocent yi tëj non non jàpp Modou Moussa Mbaye tëj ko jàpp CRK ba tëj benn étudiant bu ne comme Macky dem na Charlie Hebdo bind Facebook am ne attentat dina am Sénégal ñu jàpp ko tëj ko ba léegi mu si kaso bi. de nee dafa def apologie yow sax mënuñu xëy xool neexul eh! apologie ñaanal ma jàmm mais neexul ñu tëj leen apologie ñaanal ma jàmm laa parce que dañ ko utiliser xool ah, xool dañ ko utiliser pour fitnaal diine ah. Sénégal Macky Sall lañ amoon yaakaar ni moom mooy président bi nga xam moo judd après indépendance moom moo a dimbali kat daal di dindi buumu njaam gi mm. malheureusement moom moo gën a nelaw ci tubaab bi mm. moom mu nekk ci biir tubaab bi jël lépp delloo ko tubaab bi mm. Abdoulaye Wade góorgóorlu woon man gëwuma a eh. eh, bokk si loolu man bi man man yaarama laa man man li ma Sénégal actuellement président Macky Sall da ko ci mm-hmm. démocratie ci lépp mm-hmm. bërki dem ñu ngi gis waa euh, France dégage ne ñoom ñëw Macron bi ñu def demande d'autorisation pour dem ci préfet waaw dañ leen ko bañal lu ngeen bëggoon def dañu bëggoon dañuy dañoo bëgg jugee jugee euh, grande mosquée dem dem dem si si jàkkaarloog Macron ambassade France ne ko bi ngeen doon def tamit ñu daal leen di tegi tuuma waaw juste ma baral affaire France dégage bi rek xam mm. Mm. ngeen baal ma de ngeen baal ma si baat utiliser quoi mm. nit day am jom quoi ñoom arrêté Ousmane Ngom bi la ñuy laaxatu pour ba léegi di ko xeex. arrêté Ousmane Ngom bi mu arrêté woon daan ne euh, euh, euh, Ousmane Ngom arrêté Ousmane nga xam ne ñoom moo leen arrêté woon. moom la ñu arrêté te moom si lañ laaxut la loolu gàcce la pour démocratie Sénégal léegi nag ñun dañoo def fois teggituma parce que am na ay doomu Sénégal yoo xam dañ leen mm. def suñu fois teggituma mm. amoon nañ demande mairie bi foofu moo ñu mel autorisation préfet moo joxe décret te dëgg nañ yóbbante am préfet ñu yóbbante ne lu def dina ko tas ñun dañuy défendre loo xam ne moom xam na dossier ana préfet xam dossier sénégalais la kon ni nga ko moo tax muy far. préfet dafa nekk pour institution bi. waaw waaw Karim jërëjëf ñu ñëw ci ñëw ci Moustapha euh, euh, wala Sidiya bu la neexee. Sidiya waaw waaw di di comportement bi nga xam ne famille Athié. famille Athié ñooy libano-syrien la ah, ñoo moom ñoo donc comporté moo comporté wu nañ ko ak seen doomi réew nan lañ comporté woo waaw mais mooy mooy mooy acte waaw wax nga mbirum dàq bi hmm. wax nga tamit CD yi ngeen am ah, li moom li bu dee dëgg la moom béton la ah. mais mais mais ba xeex bi bataille bi parce que hmm. aussi cent cinquante mille personnes seeni droit même bu ñu leen dàqee nañ leen fay seeni droit léegi bataille bi fan ngeen ci toll dañu dem ak lu ngeen nar a def ci kanam dañu dem inspection du travail ñun leen lan parce que suñ délégué yi mhm. Euh, dañ leen jox comme ni ñu joxee ñun ñi demande de licenciement pour mhm. dàq leen mhm. mais inspection du travail dafa refuser loolu lu mu refuser ne ñu délégué yi mënuñ leen dàq ah instant bi suñuy délégué ah. ñoom ñëwuñ ñu ngi ñu ngi ñu ngi entrepôt ba di liggéey parce que inspection dafa bañ loolu noonu mhm. parce que tamit loolu moom moo tax ñu ñëw fi pour ñu artu autorité yi ñu wax leen ne famille bi li muy def tegu mais léegi ba léegi bi ngeen di yëngal ba nëga ni gisul leen kenn ci autorités yi ñoo xamante ni bii am na loo xamante ni bii wax nañ leen ko waaw autorités yi dañ leen bind démb rek waaw suñu délégué yi Euh, ministère du travail lañ jóge mm-hmm. pour ñu entendre leen ci dossier bi mm-hmm. pour vous dire que ne li saa di wax naan suñu bataay bi dafa dafa yolom yolomul mm-hmm. luñ mu ngi noonu liñ ci mën ñu ngi koy def ah. presse en ligne bi las barki démb génneel nañu article non saa dafa ne ngeen grève de la faim wala ngeen lakk pëna moom sa li nga wax rek saa moom dafa dafa dafa xaw a xaw a xaw a xaw a métti sawaay gis nga d'accord Omar euh, ñu ñëw ci yow parce que suñu jëli suñu benn rubrique rubrique xam ne ñu ñëw rek ci fi nekk nii Dakar dem dikk mën nañu toog diir duñ fa dégg problème parce que foncier baa nga fa ngeen am ci ay milliards. gañe ngeen xaalis. kaar yi wàcc na recruter ngeen beneen personnel bu pour renforcer yéen fa nekk ci ban xeex ngeen jëm wala da ngeen di toog liggéey mu stable amatul dara looy kaas. Euh, ankay parce que fi may waxee yow liggéeykat yëpp. Mm-hmm. Euh, ci seen traitement de salaire maanaam yokkute gi dajagul. parce que des na receveur conducteur ay technicien poste administration. taxaw leen euh, comme ni ñu wax rek cinq milliards déficit lañ ko la fi ne moo fi nekkoon. Mm-hmm. ñu dem mu des un milliard. dañoo fas yéene un milliard yi ñu faxas ko. Mm-hmm. travailleurs yi tamit ñu faxas seen lépp. d' accord dañu daal di ànd ak suñu technicien dem jëli suñu rubrique loo ci xam. aywa rubrique loo ci xam je en prie gars xool leen bu baax rubrique bi. buur yàlla war sagal tuuti xamatooñu Baaw 1970 ba tey bi ci koñ bi lépp xam nañu ko. commission dañ ko créé ndax imam dugul papaam na ko jàkkee ñu dugg ay yoon yoon ni ko génne ci biti. demal nga liggéeyi la ko pap yàgg na ko wax papaam suñu papa la ñëpp demal nga liggéeyi te bàyyi jàkkee papaam génne naa débat tey ñaata la jàkkee pap ko njëkk kenn mënu ko lim ci àddina papaam bi mu génne ci ci la programme bi mooy imam papa boobu jëlaat bi ko si jàkkee ji moom la lu jëm mu lekk bàyyi jàkkee ji jàkkee ji bëgg a daanu ci kaw nit imaam boo xëy ne mooy registre mooy bind imaam boo xëy ne lépp moo koy def ci jàkka nanguwul kenn wax jàkka ji te defu dara ci jàkka ji bi commission bi taxawee léegi defar nañu fi ay feefar aluminium defar nañu portefeuille fa rilé defar nañu fi lu bari jënd ko ventilateur jënd nañu fi saate fii lu courant yi defar rajo yi on a beaucoup fait pour la mosquée ci biir mois de mai ak léegi papaam bàyyi na fi 800000 moo ko wax ci xaalis kenn gisul xaalis yaa un homme nit jox la ko fi ay karo un million cent mille franc mu jaay ko lekk xaalis bi lu fi néew ci àddina mu lekk ko yaa un homme jaay naa studio jox la ko un million cent CFA ci kan bur di dangaan caam Ousmane Baldé kenn gisul xaalis bi li ko boolee nit mooy njuba dee moo ko boole ak nit ñi toroxal magi kon bi saaga magi kon taxaw ci jàkka ji saaga nit ñi ndey buddi fiil yi fay rajo yi su waxul su su su fi nekkul day fay rajo yi koy wax kenn du la dégg. voilà jàkka ji nga gis noonu nga xamante ni béti réewum Sénégal ñu tëj jàkka. préfet jàkka ja ah. jàkka ji fi mu toll nii kenn julliwu fa ndaxte dañ koo tëj ndax coow loo xamante ni bi am na ci mbiru jàkka ya euh, réew mu day ni réew Sénégal Aliou ñu tëj fi jàkka loolu moom loo ci xam man de samay xalaat euh, mooy côté jàkka ji. Mhm. man dama yaakaar ni jàkka néegi yàlla la ko mhm. néegi yàlla war ñu def tout ñu koy dooleel mais waruñu tëji ku mel nii jàkk. Mhm. boo ko tëjee war nga tëji baar yi nekk Sénégal yëpp. <laughs> ay podium yi yëpp waru arrêté war na arrêté. néegi yàlla. Euh. kenn waru ko arrêté. kenn waru ko tëj kenn waru ko tëj. mais bu dee xuloo ba dafa am ak boo ko tëjee rek wàññi nga dooleel lislaam Ah. d'accord mais dàgg sant bi xuloo bay fay am nag. xëccoo bi loolu yaakaar na loolu ñàkk a déggoo la rek. Hmm. Moustapha Moustapha lan loo xam ci lii. waaw ko rafetlu. Hmm. parce que néegu yàlla ëpp na tëj. Hmm. parce que tamit la preuve bu ñu respecté woon normes yi nga xam ne suñ borom. moom la wax. kon lii du am. pour vous dire que ne li Karim wax sànq sa à Euh, sénégalais yi si boppam dañu war a mun a sellal seen conscience yi mhm. ñu xam ne dëkk du du du tricherie moo koy def mhm. du waxante lu ñaaw mhm. du du du du xaxarante déedéet jikko ju jóor jóor ju sell moo koy def jikko ju sell nag bu amoon fii lii du am d'accord rafetul jaajëf Omar Omar man li may wax rek damay dellu siwaat rek euh, li fi mag ñi bàyyi woon daal yaakaar naa ni bu fekkoon ni noonu la ñuy doxalee kon lii du am. Mm. parce que éducation. fii mm. Sénégal dañu yaakaar ne rek xale rek mooy moom la ñu war a éduquer mm. éducation ci mag ak xale la. te léegi fii ñu gis mag ñi sax léeg-léeg da nga naan xale yi ñoo leen gën a euh, yaru. parce que lii dafa vraiment ñaaw parce que mag ñi bàyyiwuñu ñu woon lii. loolu daal laay mën a wax. d'accord Karim. problème bi xam nga lan la. Mm-hmm. est-ce que dégg nga Pape lu wax. dafa ni papa moo tabaxoon jàkka ji. lii mooy problème mu Sénégal c'est-à-dire bi sax dañ koy doon c'est ça le problème du Sénégal xam nga moo ko mën affaire ça gis nga lii bi ñu ko réglé lii mooy problème mu lépp da ngay gis kenn papaam nekk docteur mu ne moom day nekk docteur loolu am na ku koy jox sa poche mu piqué ko mais moo am fépp ci diine bi te diine kenn du ok nañu waxante dëgg c'est mm. man jàkk bi may julee mm. léeg-léeg Medina mm. xam naa paa bi ma gisee ma mere de paa bi su biddantee duñ julli fajar <laughs> dañuy biddante diine lañ lijjantiwul bu ñu góorgóorloo ba jàngal leen seen diine rek nekk si jàmm nit ñi nañ jàngi seen diine ku xëccoo ay jàkk da nga jàngul sa diine defe naa waaw Omar ah? waaw frère <laughs> ñi mu jël. waaw coow li bari. ah d' accord. voilà waaw de ci biir waxtaan bi lañ ko mënoon a wax. beneen yoon incha allah. voilà incha allah non non jeex na traité déglu ma eh déglu ma nag taaj taaj bu xoolal moom ba léegi ni maa ngi séddee déglu ma naan tàggoo amul <laughs> tàggoo nga ñëpp nuyu leen tàggoo non amul tàggoo amul ah, déglu ma ayca ñu may leen waaw ma rek waaw rapidement rek li may tàggoo rek mooy damaa bëgg mhm. képp ku am beneen preuve bu direction générale bi am hmm. nga indil ma ko hmm. suba suba ma attaqué direction générale oh, oh. waaw waaw Goudiaby non non Goudiaby dinañ déglu ma yow loo bëgg ko invité Goudiaby xanaa yow looy looy tàgg rapidement rek parce que leen di jaajëfal yaa Sadio ngi a baax di leen remercier tamit ci taxawaay yi jërëjëf tamit euh, mooy autorité yi nga xam ne joindre nañ leen lettre yi hmm. parce que expliqué nañ leen ni nga xam ne moom la problème bi mm-hmm. demee mm-hmm. ñoom tamit lu ñu si mën a jàpp ñu jàpp mm-hmm. ci parce que tamit ñaanuñ ñunu ñaanuñ suñu droit la ñuy réclamer jërëjëf loolu mën daal moom moo ci nekk d'accord euh, Aliou ñun suñu yi mooy si ak jigéen ak góor yi mooy président Macky Sall xam ñun suñu situation bi métti na trop ndax xam ne ñun ay sénégalais lañu te mille cinq cent ay mille cinq cent personnes Mm-hmm. li yende seen problème ay père de famille lañu mm-hmm. sonn nañ sonn boo xamante ni mënuñu mm-hmm. koo jooy fenn ku lu président Macky Sall na fexe jàppale ak ñun ay sénégali lañ ñun ay per de famille lañu problème bi xam naa ni moom bu ko yéegee réglé na comme boo soxlaa yàlla nga dajak yeneen kii lu mu wax ni sa problème dina man damay waxtaanoo rek mooy procès Imam Ndao. waaw 14 la. Mm-hmm. maa ngi woo Sénégal yëpp parce que bii mooy premier procès boo xam ne bu fi wootee ne nit dafa nekk jurit kese moo tax ñu jàpp ko di ko àtte. d'accord képp ku jullit ñu lay ñaan nga ñëw taxaw foofu ngeen soutenir imam bi ci yar ak teggin na hmm. ñu àtte imam bi ñu ànd ak moom dellu ca daara ji mu jàng d'accord Karim d'accord ñu ngi leen di remercier hmm. Sandiogou di remercier sunu invité yi ci déplacement bi merci beaucoup merci remercier également assistance bi ak technique beeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier Babacar rek ñoom Ousin di remercier bu baax nag sa Ndiaye foofu lee ca Cambérène 2 Dorobe Couture Astou maa ngi lay remercier bu baax a baax ajjuma bii di ñëw incha allah rabbi mbokk ya xarit yi jërë ngeen jëf